asalaamaaleykum mbokk yi wékle ak kontante di leen daloo nag saay su ne waaye tamit di jàkkaarloo yéen saay su ne comme ni ñu koy amalee rek seen émission Marthiou a ala doomi ndax dama nga xamante ni tey 8 euh, tax nag dinañu wax baax baax yi nga xamante jigéen ëmb na ko waaye tamit euh, solo si na ko lataa ñuy doon nag dinañu wax li waral bés bi ndax nag bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni jot nañu ko mu day xibaar rek bés bi li ko waral bokk na ci grève générale ak euh, manifestation bu femme russe yi doon amal foofu foofee euh, ca Petrograd ca Pétersbourg fan ak ñett ci weeru février atum 1917 ba tey sax ñuy xamle ni dëkk bi ko njëkk a déclaré rek waaye tamit euh, may soxna yi ngir ñu voté ab loi bokk na ci rek Nouvelle-Zélande atum 1980. 13 waaye tamit ba tey ñuy xam ne ni origine bi weer nag bokk na ci euh, Nations Unies ñoom ñoo ko officialisé juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 1900. 77 euh, waaye te mu nekk journée boo xamante ni origine am rek bokk na ci manifestation yu ouvrier yi doon amal atum euh, li nga xamante ni rek moo di vingtième siècle ba tey fi nga xamante nii rek moo di ca Amérique euh, du Nord ak ca Europe ba tey ñuy wax ba tey ci journée bi mu di nga xamante ni 8 mars ëmb na ko mu di rek euh, dooleel ak ak yelleefu li nga xamante ni moom moo di soxna yi ndax nag soxna dafa am njëriñ lool ci li nga xamante ni moo di société bi ba tey nag mu nekkoon juróomi droit yoo xamante ni bëggaloon nañ ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jigéen ñi mu nekkoon droit jëm ci wàllu compréhension waaye tamit libre de vivre Ah, waaye tamit xeex lu jëm ci wàllum violence droit bi nga xamante ni jigéen am na ko ngir jàng droit bi nga xamante ni jigéen am na ko ngir cet ak cell waaye tamit droit bi xamante jigéen am na ko ci salaire boo xamante ni dafa égalité ak ñi nga xamante ni ñoo di suñu mbokk jigéen ñi kon li bokk na ci tax rek ñuy màggal journée bi nga xamante ni jigéen ñi la ñu ko jagleel li ma leen wax sànk rek moom laay bamtuwaat samay naataango yu taaru macha allah yu jongo ma bokkal plateau bi tey sama droit am naa ki nga xamante ni moom moo di Béya dañu koy daal di bàyyi rek mu daal di nuyoo Béya ni nga def tey macha allah. macha allah merci beaucoup Penda waaw yow tamit ah bàyyi woo ñu ginnaaw de ah kontaan nañ sañ say rafet na yaa ngi na macha allah. Mm-hmm. di nuyu ñi ma bokkal plateau. di nuyu euh, tey jii nii nag comme ni ngeen ko waxee comme ni ko mm-hmm. pend waxee sànq autant pour mois ñu ngi ci 8 mars ngeen xam ni nag euh, journée bu ñu jagleel wàllum jigéen ñi la droit de la de di leen dalal fii ci Match Show TV di leen wax ni beneen facette Match Show TV lañ leen indil te spécial 8 mars ak jigéen ñi nga xamante ni tey daal ñoom lañ fi teewal. macha allah rafet na sama càmmoñ ma am soxna Asta borom tagal gu rafet bi ñu ngi lay nuyu. il est fait fay soxna Penda di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di nuyu ñi ma bokkal plateau bi mais nag damay souhaiter bonne fête à toute femme fépp pour femme mënti nekk ci mhm. Mais il ngi quoi, koy souhaiter naan la bonne fête parce que tey moom ñoo ko moom. Mhm. tey journée mondiale de la femme la ñu wax. Mhm. bésu jigéen ñi la te ñooy borom donc damay souhaiter ñëpp bonne fête de la wax Penda ñu. nga dawal tuuti ba si kanam ñu dugg ci ci baax baaxu faaw. incha allah rabbi ci la ñuy ñëw parce que bés bi ñoo ko moom dañu daal di nuyu rek Adja Dégène jox ko mu nuyoog askan wi waaye tamit souhaité mbokki jigéenam yi li nga xamante ni rek moom moo di bonne fête. waa Penda maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen gërëm aussi yéen ñi ma bokkal plateau bi di leen wax macha allah vous êtes très bien sapé ah, <laughs> macha allah gis naa leen bon may wax aussi comme ni nga ko waxee rek tey mu nekk journée internationale journée mondiale de la femme 8 mm-hmm. mars ñu siy sargal ñi nga xam ne ñoom ñooy donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne leen ni ci kanam rek ñu dawal xool mm-hmm. dañ fi andi incha allah. tey moom day ala daw mi bu neexee yàlla parce que jigéen yee ko moom. macha allah soxna yaa ma sa balan macha allah. noo def gis nga woote jàmm rek ci journée de la di la nuyu di nuyu Degen Asta Beya maa ngi lay nuyu. di nuyu mbokk téléspectateur Kaolack TV yëpp di leen wax ñu daal jàmm seen biir émission match comme ni ñu koy tàmm di defee mais tey dafa spécial ñu def. spécial 8 mars tay bo gisé plateau mo ala ndaw mi nii macha allah <laughs> ci kanam touti daañu yaatal ci journée mondiale de la femme di di souhaiter wat bonne fête à nous. tay ñu nay jigen kessé bi tok kenn doxalal ba ci kanam. <laughs> comme niñu ko waxé sank rek dañuy jaajëfal waaye tamit ñukkal suñu góor Babacar ndax tay ji mo mo ñu cédé place bi ginnaw 8 mars bi bokku na ci galante di goor donc tay ji dañuy dal di doxal rek wax solo si nga xamanteni ñi jigen amna ko société bi béya ku ne jigen na yaay ku ne jigen na tante mais aussi ku ne jigen na sœur mais aussi ku ne jigen na doom jigen mu nekk rôle boo xamante ne ñu ngi koy euh, maanaam doxal ci société mu nekk rôle bu am solo yow en tant que yaay en tant que maanaam mère de famille en tant que sœur ban nga gis ne rek jigéen ñu ngi koy doxal mu nekk rôle boo am maanaam boo xamante ni lu ñu war a mën a bàyyi xel ak continuer ko. waaw Penda maa ngi lay euh, remercier waat ci question bi. di la wax ni dama ciy sawar a tontu. Mm-hmm. parce que tey jii nii tey mën naa wax ni maa ngi occupé ñaari place yoo xamante ni euh, jigéen en tant que tel. Euh, bu ko bu ko taxawee rek euh, maanaam loolu sag la ci ñun tout d'abord avant tout waa di la wax ni yaay laa jigéen la mhm. jabar la <laughs> merci beaucoup mhm. nga wax aussi euh, bon nekkul lu yomb mhm. nekkul lu yomb moo ñuy bàkkee jigéen jàmbaar malgré et contre euh, tout maanaam difficulté yi ñuy jànkonteel jafe-jafe et tout ñu ngi jéem tenir debout waa di jéem a forcé wu parce que ñun ci ñun la lépp bootu tey muy suñuy doom suñuy euh, papa suñuy mag suñuy rakk ñun ñëpp tey jii nii tey maanaam jigéen moo ëmb lépp tey boo déggee ñu ne la jigéen moo ëmb lépp maanaam euh, fu jigéen nekk rek xelu nit daal dafay dal. absolument macha allah mm-hmm. xelu nit dafay dal parce que dañuy xam ne jigéen mën na euh, gérer. Mm-hmm. mën na bu loo ko dénk rek da ciy génn. ba tax na tey mën a moo tax ma ne fu jigéen nekk rek mhm. xel yi dafay dal mhm. wax dëgg waar macha allah am na solo asta dégg nga béyaa li mu wax ci li nga xamante ni jigéen mën na ko ci société bi mais aussi ngay jigéen donte sax ah, nekkagoo ci sa néegu am na loo xamante ni gis nga sa yaay doon ko ci biir kër lan nga ñu ci mën a baaxee loo xamante ni mën nañ ko retenir maanaam mu nekk conseil boo xamante ni jigéen mën nañ ko jëfee Penda danga xaw su ma ko mënee waxee noonu. kooku da di jàmbaar. jàmbaar jooju seen caali Demba Seen. moom nee naa ko buñ toppee ci ay tànkam rek ñun duñu réer d'habitude daf may faral di ma wax ne ma. sëy naa ba caat caatlu mosuma yenu ndabal fay mu nekk loo xam ne baat boo xam ne la à chaque fois mm-hmm. euh, daf koy faral di ko wax sama mag yi nga xam ne ñu ci néegu sëy mm-hmm. pour te montrer que ni jigéen mm-hmm. euh, dafa dafa nekk loo xam ne lu am important la ci societé nekkul ne jigéen dañ ko war a def comme femme objet nii rek di ñu di ñu di ñu di ñu tuutal à chaque fois ñu ne jigéen góor après jigéen non jigéen dafa war a jiitu jigéen ci wa ci ñu war a jiitu ci la bokk tenda parce que tey jii fii comme Béyani bi ko waxee lu fi dox rekk jigéen ñee ko doxal fii bureau mënoo dugg bureau ba génn te fekkoo fa jigéen. Mhm. jigéen ñaa ngi fépp di daan seen doore. Mhm. di nangoo liggéey ñooy njëkk a jukk mujjee tëdd toppatoo xale yi. nekk toppatoo alaaj. macha allah ñu am na ci am na ci ñu am jom. boo demee màtt gi dégg leen fay fekk macha allah ci seddaay bi ñuy mhm. ñafe. Mhm. di liggéey di ñaq te buñ paree duñ ko yóbbu fenn pendal fudut ci seen kër yi. Mhm. jigéen takkut or solul jasineer ndax bëggut jabootam xiif lu am solo ngi noonu. képp kuy jigéen rek tey jii bés bi yaa ko moom te franchement tey jii moom feet la rek. nañ ko nañ ko feetu rek. Euh, dégg ngeen mu di bés bu ñu jéglél donte sax bés yëpp ñoo ko moom en tant que soxna ci biir kër way mu ñu jég ab bés bo xamanteni dañu ko jéglél ñi nga xamni ñoo di soxna yi en tant que mm-hmm. euh, jël lan ngay wax ki nga xamni ak ni dundé ci bi société bi lan lañu wara bayyi ak lan lañu wara yokku waa Penda loolu dama ciy kontaan pour wax ci. parce que euh, société bi comme ni ko sama ñaari naataango yi waxee muy Baya ak Asta. jigéen dafa baax ci société bi. donc tey jii nii man li conseil bi ma am pour jokkoo ñi nga xam ne ñoom ñooy samay moromu jigéen. nañu takk seen gë liggéey. te xam ne ñoom ñoom buñ liggéeyut. ñoom buñ liggéeyut société bi du dem. Mhm. góor dëgg la baax na ci réew. waaye jigéen tamit ndax jigéen tey jii nii moo jur fii ku fi doon président jigéen moo la jur mhm. ku fi doon ministre jigéen moo la jur ku fi doon mandikat wala leneen ak leneen jigéen moo la jur mhm. kon tey jii nii war nañ jox jigéen ñi seen àq ak seen yelleef bu baax a baax a baax ma leen di gën a ñaax di leen conseiller ne leen tey buñ nangu kenn di leen tuutal wala ñu leen di def loo xamante ne tey jii nii jaaduwul ndax jigéen mooy lépp ci société bi mooy mhm. mooy mooy mooy lépp daal ci ni ma ko mën a dénkee donc nañ gën a am jom tey bi may ñi bi may xëy tey suba man ak borom jakarta bi ma àndi mhm. dañ doon waxtaan mën a ko nit ak loo mënti kaa doon ci mhm. àddina mhm. te ñëw ñëwoo di xëy takk sa sër di liggéey di am yow li nga xam ne moom mooy sa besoin personnel nga di ko fajee sa soxla yow doo dara man c'est ce que je me tout le temps dafa kontaan ci man ba bi ma ko fayee daf na ma noo jël ko parce que yow exemple nga ci société bi mu nekk loo xamante ne tey jii ni damay ñaax sama moroomu jigéen ñëpp comme yéen ñi ñëpp fi toog tey kenn ku ci nekk sa ñaq bopp ngay dundee mm-hmm. donc damay wax jigéen ñi buñ di dépendre ci kenn mm-hmm. que muy seen jëkkër seen papa seen nijaay bu ñu dépendre ci kenn au contraire nañuy xel nit ñi di dépendre ci ñoom mm-hmm. man c'est c'est ce que j'ai à leur dire yaa mm-hmm. euh, mu ñoo ko déggandoo mu nekk loo xamante ni euh, lu béyaa wax la sama naataango yi firndeel ko mm-hmm. en tant que jigéen aussi nan nga gisee rôle jigéen ci biir société ak société nga xamante ni am nañu ko waa Penda dama ciy sànni tuuti tuuti rek parce que ñoom ñëpp ñoom wax nañ lépp mm-hmm. dañu jigéen mooy societé bu société bi baaxee jigéen la bu bonee itam jigéen la kon dañuy dañ leen di ñaaxaar rek ñu defaraat seen toogaay gën a góor góorgóorlu ñuy góor góorgóorlu mais dañuy gën a góorgóorlu yokk jom bi ak fulla fayda bi leen ñi ñu xamee takk seen sër dem liggéey gi benn liggéey baaxul léegi booy seetlu sax machine walukaay yi jigéen ñoo fa nekk di wal mhm. mécanicien jigéen loo électricité jigéen mu ngi noonu daal nañuy gën a góor góorgóorlu rek ñafe waat yaa ma gën a xam <laughs> comme ni ñu ko waxee rek dañuy daal di nuyu waaye tamit sant gërëm ñi nga xam ñoom la bàyyi ci kër gi parce nag ay yaay la ko bàyyi mm-hmm. ñu day jigéen yoo xamante ni ay jàmbaar ay a yàlla bàyyi na leen fi nga xamante ni dëdd nañu rek ñu leen ñaanal yàlla oy ko suuf seen kaw mm-hmm. ba njaboot bi ñu ci bàyyi rek yàlla wutu leen fi ba yaa mu nekk loo xamante ni ci jamono ji mën nañu ne ñëpp koy waxtaanee parce que ça fait l'actualité mm-hmm. jigéen taxawaayam ci ci biir néegu sëyam ndax nag néegu sëy bi mën nañu ne mooy lépp une femme ki de seen kër néegu sëy bi moo ci des te fa nga mën a sëy jur doom yu baax mais aussi fa nga mën a sëy ba yàq say doom mhm. taxawaay bi jigéen war a am ci biir néegu sëyam jëm ci ay doomam ngir ëllëg mais aussi toppatoo boroom këram ak ñi nga xamante ni ñoo di belle famille ba gis nga ci am waaw bi ma ci bi ci am wala gis-gis mooy mhm. nit ki il faut euh, il faut ngay ngay demee ak euh, respect jigéen en premier lieu da am respect ci sa bopp en retour ñu mën la ko delloo en beneen bi aussi mooy liñ ñuy bàkkee chaque jour liñ ñuy nawee chaque jour ñu continuer ci euh, loolu di ko jëfe bañ à chaque fois di di di am yenn comportement yi wala parce que tey dañuy wax ne boo xasee ba dugg ci néegu sëy am fa ay doom jam nañ la mm-hmm. rawatina nag nga am doom bu jigéen dañ naan doom bu jigéen jàngaani yu merci beaucoup Penda donc tey ñun en première lieu nañ defaraat suñu jikko defaraat suñu nekkin ci biir société bi maanaam société bi tey boo waxee ñi ci biti c'est très large mais ça commence d'abord dans la famille sa diggante yow ak sa jëkkër nooy doxalee ak sa jëkkër naka ngay nekkee ak sa jëkkër ba say doom parce que xale yi léegi dofuñu mm-hmm. lu ñu gis dañ koy copier ba say doom lépp li nga xamante ni danga koy faral di def bu ñu ci xoolee dañ ciy jëlee lu positif loo xamante ni avancement la njëriñ la mhm. bu ko defee loolu dafay nekk une répercussion fu ñu dem rek affaire boobu daf leen di topp mhm. maanaam ñun ñooy société bi ñun ñoo war a defal société parce que yàlla daf ñu baaxee lu extraordinaire mooy mhm. am doom c'est tellement magique amul beneen xeet bu nekk ci ko suuf wala beneen euh, aspect aspect humaine bu nekk ci ko suuf. Mm-hmm. boo xamante ni tey bu weesoo jigéen mën nga ci euh, am doom. Mm-hmm. comprendre nga donc li ñu yàlla baaxee may ñu ko buñ ko sàggane mm-hmm. amaana tey jii ni tey mënoon na ko def ci ñeneen wala mu def ko ci góor ñi et mais ñun la ko baaxee donc loolu noonu tey chance la. chance la boo xamante ni tey war nañ ko mën a tenir. à tout bout de champ. nous ñu surtout. nous société bi suñuy euh, belle famille famille itam des choses. Mm-hmm. parce que yow fa sa famille derrière. Mm-hmm. say aussi sa représentation ci biti. Mm-hmm. donc la ngay la nga len di ñaax éducation ba ngay def ci ñom lool rek lañuy mëna jëfé ci bëgg nañ ci bàyyi xel bu mhm, baax bu baax a baax nañu ci bàyyi xel ndax nak dañu naan doom janday jekk ko bañ rek sa nday baaxul effectivement parce que mu nekk loo xamante des fois da fay répercuté wu ci ñi nga xamante ñoo di doom yi mu nekk sey bi nga xamanteni la gis nu ko mu baax mo xam mu bon donc bu ñu gisee doom yi dañ naan debbu ñu ndayam la debbu mhm. est ce que tamit yaay ji am na droit def lo xamanteni manam erreur la non benda amu droit def euh, lo xamni erreur parce que dañ ne doom bu baaxee doomu ñëpp la mais mm-hmm. su bonee doomu nday jakase la tey jii Penda man Asta su ma defoon tey jii euh, lu teggi newut ñëpp ñoo may di jureet su ma ko mënee waxee mm-hmm. mais sama yaay jamais mu abandonné ma ne nañu saw bi fóot doom nday doo nga ko am billaay wallaay mm-hmm. te olof lu mu wax rek daa am Penda parole yooyu saa existe donc nday nday dafa nekk lu fort ci doom sa yaay bu la sëyalee sëy bu rafet yow dom na nga fexé ba fay koko won ko ni carrément yaay da nga son sama kër baay kon waruma la fayé yenn yi eh, tamit jigéen ñi nañ xolaat seen sey nañ xolaat bu baax man man de mënuma ci wax lu bari parce que mhm. peut-être awma ci expérience mosuma dugg ci néegu sey mhm. mais gis na ni samay sœur di seyé ni sama wajur nekkee sama kër baay mhm. ak samay tante té gis na ni ñu ngi topato seeni borom kër li ci war ñu koy def ñu ngi toppatoo seeni i sëy bëgguñ dara lu métti seeni doom bëgguñ dara lu métti seen i jëkkër. Mm-hmm. à chaque fois ñoo ngi jug teel a xëy liggéeyi ñu am indi si kër gi di toppatoo seen njaboot parce que tamit éducation dafa baax ci ci xale. xale boo ko bàyyee noonu jur tekk mm-hmm. dem indi lekk jox indi yére mu sol te xooloo xale bi ni muy doxalee ci biir kër gi jikko ji xooloo jikkoom mm-hmm. tamit loolu leneen la parce que xalé dafa laaj éducation xalé dafa laaj yar. Mhm. yaay des fois certes c'est bien nga dem wuti indi kër gi ñëpp toog kontaan lekk mais fay bax aussi des fois nga toog. Mhm. observer say doom xool nan lañuy doxalé ci kër gi. Mhm. parce que genre kër yëpp ngi yaqku kër yu bëree ngi yaqku parce que. Euh, papa ak yaay présente présence c'est une présence nekkul ci kër gi amatuñu jotu xale yi amatuñu jotu xale yi dañuy dem xëy liggéey huit heures la ñuy yeewu balaa ñuy xëy xale yi jàngi nañ mhm. buñ duggaatee si kër gi 21 heures xale yi tëdd nañ xamuñ xale yi lan ban ban ban yar lañ am mhm. xale yi mbedd yi ñoo di yar alors que loolu c'est pas bien mhm. nañ toogaat ci kër yi dimanche yi ak samedi yi nañuy toog di xool xale yi di waxtaan ak ñoom di xool li leen métti

na waxtaan ak yaayam li nga xamante nii rek moom mooy maanaam euh, l'âge de la puberté yaay ji aussi rus na expliqué doom ji li nga xamante nii suñu amee nangami at li moo koy dal li moo koy arrivé donc fan la ñu jëm. Euh, Penda loolu dama ciy sawar a tontu. Mm-hmm. mais euh, parce que jamono ji ñu toll comme ni nga ko waxee rek doom ak yaay dafa jege surtout doom bu jigéen. Mm-hmm. man je me à chaque fois que ni nit ki. li ngay dem di ko wuti ci medd bi te mu nekk ci sa wet nga jël loolu moo gën. Mm-hmm. ndax it sa yaay kenn mën gënu laa mën a conseiller que sa yaay. ak tey lépp loo mënti kaa dugg boo ci waxtaanut ak sa yaay defe naa ni munoo cee jëlee loo xamante ne lu positif la. Mm-hmm. dëgg la nag xarit am na mais sa yaay moom nga war a gën a mën a jàpp moo war a doon sa xarit. Mm-hmm. sa rakk sa mag sa lépp. ndax yow mi xa jigéen di doom ngay génn ci biti di nga gis li so di nga gis lu bari ci société bi mhm. or que sa yaay moom muy toog xam na lépp dafa toog rek mais xam na lépp donc lépp li nga xamante ne mën nga ko jéegaane dem jëli ko feneen nga toog waxtaan de passage damay nuyu ki nga xam ne mooy sama yaay mhm. faa ñaga yaaram seetaanuma benn yoon wax dëggante fa yàlla à chaque fois su ma toogee sax isolé wu sama néeg ñëw na ba ci man toog man waxtaan ak man laaj ma. dama ko nëbb ma wax ko mu conseiller ma donc loolu dafa neex complicité la entre yaay ak doom. te loolu noonu damay ñaax sama moromu sama moromu jigéen ñi. ñu toog am ak seen yaay bi la complicité buñ ci rus dara. surtout aussi respect bi nga xamante ni warloo nañ ko seen diggante seen waajur. surtout respect boobu Penda. surtout respect boobu parce que tey jii ni man mënuma concevoir yow ngay doom di jigéen nekk sa kër ak sa yaay euh, ngay jël sa yaay di ko def sa morom. du yoon man man man man en tant que jigéen loolu man nawloo ma ko. te nawloo ma aussi ku koy def donc man damay damay andiwaat raison ci sama morom yi mais aussi si suñu yaay yi. ñoom aussi loolu am nañ ci part de responsabilité parce que boo amee sa doom bu jigéen jege ko yow bu lay sori yow jege ko bu yàggee moom dina la jege si. ngay waxtaan ak moom di ko conseil xamal ko àddina. bañ di adopté ay méthodes yu sa doom daf lay ragal aussi lay ragal. Mm-hmm. kon waajur yi aussi loolu am nañ ci benn part de responsabilité ma leen di ñaaxaat bu baax ñoom. Mm-hmm. ñuy jege seen doom yi di leen xamal àddina di leen waxal ndax loolu day tax sax buñ demee tey jii nii ba màgg dugg seen néegu sëy mm-hmm. buñ fàttali ko wax ji nga xam ne seen waajur yi ñu ngi leen ko doon wax duñ sonn te dina tax tamit problème bu ñu am seen biir néegu sey danañ am fitu dem jàkk toog ak seen i waajur waxtaan koog ñoom. loolu la wolof naan ku mm-hmm. ñu wax souvent neexee nday solo bu baax a baax ci fondement li nga xamante ni moom moo di sëy yi parce que tamit dañuy wax ni sëyu gone mag ñi ñoo ciy jàpp ngir mu mën a am li nga xamante ni moom moo di kiiraay mm-hmm. donc jàppale leen ñu ndax bëgg nañoo sëy mm-hmm. mm-hmm. donc ku ñu jàppale rek la ñu en tant jigéen ndax sëy moom mooy euh, moom mooy taaru jigéen yaa mu nekk li nga xamante ni san sa naataango yi am na lu ñu ci firndeel jigéen ci biir kër jigéen nan la war a sëyee ci biir kër mais aussi lan ban na lien moom moo war a dox ci diggante yaay ji ak doom bu jigéen bi ngeen mën ko dimbali li muy doxee société bi aussi bu duggee ci néegu sëy mën lay doxalee. nan lay doxalee waa Penda loolu dama ciy sawar a tontu parce que ba boo nee yaay ak doom doom bu jigéen rek jeexal nga wàcc. Mm-hmm. dañoo war a doon complicité. Mm-hmm. di waxtaan di nasanoo di noccendoo di waxtaan dugg ak génn man de gàcce ngaa laa man sama yaay. du def dara lu ma yëgut dañuy toog di waxtaan projet bu ñuy waaj a dugal lu teg oo ay doomam lii lii lii laay def léeg-léeg lii pour ne xelal ko xeebal suñu xalaat dara benn yoon dañ ciy waxtaan ba mu jeex tàkk ba démb moo si mujj macha allah kon dañuy gën a defaraat toogaay defaraat toogaay di xëcc seen doom yi jigéen yi di waxtaan ak ñoom di leen teg ci yoon ak si ñoom ñoo ñu mën a teg ci yoon tërë jamono gi nag tërë tërë dina bépp tërë di boo xamante ne boo xëccul sa yaay waxtaan ak moom rek. da ngay sànq mhm. surtout jamono gi nekk jamono réseaux sociaux. Mhm. kenn amatul temps toog yaay lii yaay lii yaay waa fii yaay lii déedéet ku nekk yaa ngi sa téléphone kaj kaj kaj kaj dugg ci nekk si la li la neex. Mhm. dañuy defaraat toogaay rek. il faut être organisé dans la mhm. vie. tu es femme au foyer tu es mère tu es aussi salarié dans une structure. Mhm. ces structures bi ngay mhm. poste tu fais un planning. n'est-ce pas mm-hmm. da ngay def planning wala ñu envoyé la un planning bien déterminé boo xamante ni loolu la employé war a topp mm-hmm. donc dans maison aussi tout femme doit être gestionnaire mm-hmm. maanaam tey su ma nee gestionnaire sa kër da nga koy gérer teg say planning du lundi au vendredi soit da ngay say doom ñoo lay njëkk a xëy amoo temps waxtaan ak ñoom et tout y a souci mais le samedi da ngay caler un moment pour eux un moment ngeen def activité. un autre moment de telle heure à telle heure. damay damay waaw damay mhm. waxtaan ak samay doom. Mhm. dama leen di wax qu'est-ce qui ne va pas. Mhm. qu'est-ce vous ressentez lan ngeen xalaat nu ngeen gisee kër gi. à l'école lan la lu xew foofu noonu. bu ngeen xool xool vérifier ay kayem si boo xoolee ni matière bi chuté na wala matière bi san vapa va nga laajte ko il faut tey jamono tollootul. jël sa doom di dóor. Mm. non non tollootuñ foofu. xale yi soo leen bëggee yar da ngay nekk ak ñoom si waxtaan. Mm-hmm. dialogue mm-hmm. muy wax nga di ko tontu nii la nii la te il faut aussi man dama seetlu benn mbir ñun jigéen ñi en général sa doom da lay ñëw poser la ay question mais danga koy jànni. Ah, dañuy jàpp ne c'est tabou alors que non. non non non mm-hmm. c'est permis. Alors ça sont des occasions à capter. sa doom bu ñëwee maman lii yaay lële profitool ci loolu nga expliquer ko. Mhm. wax ko ni ak ni man. su koy wax parce que je prends euh, un exemple moi-même. Mhm. Ma samay dom je ne rate jamais l'occasion suñu ñëwé mama maman mama maman man je explique. Mhm. su ma amul temps ba amul temps ma expliquer le brièvement su ma ba jël ben jour ma tok waxtaan ak yow il faut pas faire ceci il faut pas faire ceci il faut aller comme ça il faut aller comme ça. ñu leen di ñaax aussi julli. bu ngeen di julli ko catholique comme musulman si vous priez. Mhm. indi leen seen doom ngeen toog ak ñoom ngeen prière ngeen mhm. comme man samay doom dama leen di faral di naxee lool ma ne leen si vous ne priez pas avant de dormir vous allez faire des mhm. bu ko defee nag ñoom léegi tous les soirs avant ñuy tëdd dañuy prière ah, ah. waaw il faudra dialoguer xam ni xëccoo xiiroo ngaayoo lu mu la xañul du la ko may du la ko xañul du may comme ni ko waxee man je pense que ni jigéen dafa war a tëddee njaaxaandaay ci biir société bu ñu ko waxee man di olof Njaay doomu jàmbur euh, man dama ne du dëgg mhm. parce que tamit doom doom la mhm. bi nga jur ak bi nga jurut ñoo yem parce que ëllëg ngay sàmm mhm. tey ji euh, ni mu yoree doomam bu doomam génn ni mu ni mu yoree doomam tey wala doomu moroomam bu doomam génne noonu la ñu koy yoree donc papa nga boole ñu boole ñu kon jigéen nan la war a tëddee ci biir société bi en tant que jigéen war a def jigéen dafa war a tëddee njaaxaanaay ni nga ko waxee jigéen dafa war a doon yaay ci ci fànn yépp mm-hmm. man en tant que Asta euh, Penda imagine fii ñu toog mm-hmm. ku fi am vingt cinq ans aussi yaa ngi koy soog di am ay xale ñoo fi toog mm-hmm. mais tey ñoo ngi wax ay wax yoo xam ne man genre je suis choquée macha allah xaw moo ne xale yi mën na lii <laughs> non uh-huh. non je a ngi yéen a ngi débat ci loo xam ne dafa nekk réalité. Mm-hmm. dafa nekk loo xam ne jigéen bu toog bu toog tey jàkkaaroog teleem jàkkaaroog Kaolack TV. Mm-hmm. di nga xam ne ñii li ñuy wax dëgg la. jigéen dafa war a tëddee njaaxaanaay doon yaay ci fànn yépp doon yaay ci ay doomam. Mm-hmm. doon yaay ci boroom këram. doon yaay ci ay njëkkeem. doon yaay ci ay goroom doon yaay fépp. yow lu ñëw na la dal ba pare balaa muy jàll. protéger sa kër. taxawal ci bunt bi du mhm. dara dugg mhm. te yow xamoo luy dugg mhm. noonu la jigéen di toogee ci société bi macha allah jigéen dafa war a dafa war a actif am na lu ma yaay kan awa dégg naa awa yaay la de man moom ñaareel ma dal bari ci ñoom. ah kon xam ne bu ñu xam ne duñ mën a dugg. duñ a dugg wax dëgg ñun on a des cas à gérer suñu kër dañ koo war a gérer stablement xam nga. non non ñaareel bu ñëwee après dañ lay bu fii indil la coow xam nga. bu leen mënee seen place duñ leen bu mag. ñu ñëw toog seen ginnaaw. waaw non non bu nit nit dégg li mu wax ak la tëddee en tant mais aussi ci biir a du ki doom wala ki doom man Penda à chaque fois man damay jël exemple ci sama yaay hmm. jëlul ay doomam rek taf ci non man dama dem ba damay parce que kër ga da ngay kum jur même bu la foree ci medd bi sax dalay def ni doomam mm-hmm. sang la solal la tete la yar la def ci yow éducation mm-hmm. loolooy yaay te comme ni nga ko waxee dañoo war a tëddee ñaaxanaay mm-hmm. ñun looloo suñu devoir du ma ne kii sama doom la ci moom laa yem non doomu jàmbur tamit sama doom la ndax sama doom ëllëg dana génn dem te xawma lu muy fekk ji ci biti donc man su ma gisee doomu jàmbur dama koy accueillir def ci moom li gën def ci moom li war ba sama doom bu génnee surtout éducation bu baax penda ndax sama doom ëllëg kenn mënta téye sa doom à vie sa biir kër mënta nekk bu demee tey jii nii muy góor di jigéen bu demee ba am bac dana génn dem université mhm. te du nekk sa biir kër feneen lay nekk au contraire nan la fay nekkee ñam fay nekkal est-ce que danañ ko yor mhm. est-ce que danañ ko jàppee ni seen bopp est-ce que danañ ko def ni doom bi mu jur loolu yëpp nit da ko war di jàngat di ko xool te lu ñuy wax rek loo jàppee doomu jàmbur noonu la def sa doom ëllëg loo loo loo leble loolu lañ lay fay donc man je me dis ni doom doomu ñëpp la li mm-hmm. ñu naan bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ñëpp yaay yaayu kenn moo tax ma naan doom doomu ñëpp mm-hmm. ñu war ko firndeel mm-hmm. ndax yaay ñëpp la war a uuf du sama doomu jiit la doomu jaambur la xaw ma yaayam xaw ma papaam non duma ko def taalibe yi ci medd bi sax dañ leen war a jël uuf leen ndax ay doom lañu ndax bu xalaatee ni seen doom mën na mel mën mën na mën na mën na mel ni ñoom wala bu nekkoon seen doom nan lañuy def donc je me ni képp kuy yaay war nga mën a jël responsabilité boobu uuf njaboot gi uuf ñëpp tette ñëpp xamal ñëpp àddina ndax ëllëg moo tax àddina dafa guddi tànk penda mhm. man tamit je pense que nii ki nga njëkk ki nga njëkk a gis ci biir kër gi donte juróo ko béyaa moom nga war a njëkk a considéré comme doom ndax moom nga njëkk a gis mhm. bu dul loolu sax da nga fekk papam nga bëgg ko ci doom bi mu am mhm. donc mënoo bañ ginaar bëgg ñeexam mhm. pour nga bëgg papa ji il faut nga bëgg doom ji aussi mhm. de même que papa ji pour mu bëgg yaay ji il faut bëgg doom ji mhm. donc da ngay considérer ni ki nga njëkk fekk ci kër gi euh, bi ci kër gi doo ko jàppee doom mais da nga jël sa doom teg ko ci kaw ki nga xamante ni yaayam nekku fa est yoon la en tant que jigéen ci biir kër waaw muy noonu benn yaay yaay daal yaay ñëpp la dafa war jël ñëpp uuf mhm. muy doomu jàmbur muy ki ca koñ ba ki ca mbedd ma ki gis nga loo defal doomu jàmbur ala kulli sa doom bu génnee moom lañ koy defaral mhm. loo lebe rek moom lañ lay fay mhm. kon daal nañu defaraat toogaay yi daal xoolaat ji koy ak comme ni ñu koy waxee rek nañu muñ Beya bu ñu nee jigéen dafa war a muñ ci ban fànn lañu ko teg mais jigéen dafa war a muñ rek ëmb na la ça veut li ñu sas nekul lu yomb. nekul tamit lu oyof. parce que dañ ko antan motax ñu sas ñuko ko. buñ ko buñ ko antanul won kon duñ ko doon. Mm. tek suñu ndodd yi. donc tout ça là dafay résumer le rôle de la femme. Mm-hmm. dans la société ban rôle la femme wara jouer parce que on est régulatrice hein, mm-hmm. c'est nous qui régulons la mm-hmm. société. ñun ñoy taxawal ñun ñoy taxawal lepp la nga xamantene tay moy doxal société bi. président. Macky Sall mm-hmm. la. la mm-hmm. donc on est femme on est mère. Mm-hmm. mais spécialement ci 8 mars nous sommes des femmes aujourd'hui on parle là de la statue de la femme. quel est le rôle de la femme dans la société. quel est le rôle de la femme dans dans les ménages. dans les maisons dans la société dans son entourage et tout donc tay ni tay sa doomu jiitle wala sa doom boo xamante ni tey juróo ko sa biir si sa biir bi ça veut pas dire que ni juróo ko rek danga koy maltraité ou bien tu la laisses à l'écart non non non ngay ñun la dañuy jël lépp ëmb mm-hmm. dañuy jël lépp uuf mm-hmm. parce que xooluñu tey ñun suba la ñuy xool mm-hmm. suñu vision macha allah yàlla defal nañu yemul tey boo gisee tey lépp luy gën a dox entrepreneuriat groupement yi association yi lépp la nga xamante ni tey femmes yi mu ngi ci biir da ngay seet ni loolu moo gën a am développement mm-hmm. loolu moo gën a am épanouissement macha allah voilà donc tey bu ñu xool tey nañ xool suba mm-hmm. qu'on soit des visionnaires ñuy viser loin mm-hmm. ñu defal suñu cadre de vie defal suñuy njaboot defal suñuy jëkkër defal suñuy famille ak nos belles familles. Mm-hmm. bu ko defee société bi macha allah bon vivre la ñuy wax. bu boobaa macha allah mm-hmm. macha allah bu déggee jigéen muñkat la fan la la yóbbu. Penda déjà. Mm-hmm. en tant que jigéen euh, nga am borom kër. say waajur teg la si digg ëtt bi. boo yeggee muñal lañ lay njëkk a wax. mu leer la ne doo fa fekk lu neex. dëgg la donc danga nga war a muñ. booy sëy dañ leen ne muñal. buñ la tegee ci ëtt bi ne la muñal jàkka buñ fa jógee ba ne alxayr gi jib na boo yeggee muñal lañ lay wax kon boo yeggee da nga war a muñ lu métti nga muñ lu neex nga muñ. mais aussi est-ce que ñi nga ñi nga fekk waru nga mën a dimbale ak ci muñ googu muñ tam muñ mais mais mais na man foofu noonu li ma ciy dolli mooy que ni c'est nous oui c'est nous dans nous. Mhm. Ni ben ngay que en général ne sont pas leen la ils sont pas dans le polémique. Mhm. wax ils sew mhm. et tout. ñun la. voilà goro ay en général les yu bari am ci kër gi sa même sa la bu bu ko aussi la polémique, wax mom genre ci mais ñun la. donc ñun ñoo wara suñu nous ñun suñu bi ñu d'abord. nañ bëggante suñu biir. ñu ñooy dooni goro ëllëg. li am mais mm-hmm. tolloowu ku ci nekk ak li yàlla bind ci sa jëb bi. alaa kulli al balaa ngaa faatu da koy jot. Mm-hmm. kon bu ñu gëmee ni tey jii tey lii la on s'en à cela. ñu bàyyi nit ki mu doxal viwam bañ ko teg ay barrage bañ ko indil ay problème yu sew parce que boo seetee ba seet ñun laa ñun ñooy soxorante suñu biir ñun ñooy jalousante suñu biir lu metti lu ne jigéen moo ko koy teg mm-hmm. hein? c'est tellement difficile mais c'est c'est la réalité il faut mm-hmm. qu'on en parle quoi mm-hmm. voilà c'est ça de li mu wax dëgg la de dama ko ciy rejoindre parce que Penda tey da ngay sëy ci kër sa sa borom kër yow amul doole noonu nga dem fekk fa sa wujju peccorgo moom borom këram mooy def lépp bu xar dee moo ko rey bu bu dépense ñëwee moo ko jox dañ lay gënale ak kooku alors ba nga jógee sa kër bàyyi ñëw sëy moo la tax a jóg satisfaire sa jëkkër satisfaire say goro moo la tax a jóg mm-hmm. mais dañ lay gënalante ak sa wuju peccor ba ba nga xam ko te loolu ça fait mal ndax jigéen ak noo mënti mel noo mënti toll yow bëggoo ku la gënalante mm-hmm. bëggoo ku lay jiingat bëggoo tamit kuy jël nit di ko teg sa kaw mm-hmm. ak noo mënti mel nag ak noo mënti toll jigéen bëggul loolu donc man damay ñaan goro yi ñu jàppee euh, jigéen ñi ñu jàppee seen seen seen seen euh, jabaru doom yi. comme seeni doom yu ñu jur. bu ñu jàppalee ñu sëy yi comme seen yaay voilà waaw nañ bu ñu defee vice versa rek. Mhm. kër gi dina neex dina naat suñu jëkkër yi dinañ dem liggéey yi indi si kër gi ak xel mu dal. parce que tey boo bàyyee sa jëkkër ba xëyee liggéey mu leer la ne sa yaay. ak sa jabar wuñu bo demé do liggéey ak xel mu dal yaangi nan buma yeggé ma yeggee fekk fa ñu tojante bopp fekk sama jabar dem sa xel du massa dal alors que sa yaay bu jëlé sa jabar taf ko ci kawam yow da ngay ñëw sax fekk leen ñom ñaar ñu toog si lal bi di waxtaan di saafante mm-hmm. lu ko metti mu ñëw confesser ko si sal sal sa goro wax ak sa goro waxtaan sa jëk liggéeyee xelam fay dal té xam nga lu ci gën a métti jafe-jafe merci parce que bu mu tànn yaay bàyyi soxnaam bàyyi soxnaam ex ex amul de. parfois ci donc jot na yaay aussi xam bonooru doomam mu xam ne jël doomam ko yow jàppale ko mhm. Mhm. Mhm. Euh, Penda ci foofu laay ñëw man je me ni du lépp lekk. ci sëy la ci sëy la ci donc loo gis rek ci njëlbeen la. Mm-hmm. parce que tey jii nii déjà sa kër ga nga nekk rek di fa di fa di fa dundu mm-hmm. nekk ak sa yaay sa papa say frère say sœur boo fa muñut defe naa doo mun a muñ fenn. Mm-hmm. donc lépp ci début la lépp ci commencement la fi nga nekk foofu nga war a mun a muñee ba boo sëy jee war tamit war faa mun a muñee donc lépp donc lépp ci commencement la penda donc lépp donc lépp ci commencement la penda kër gi nga nekk. foofu nga war a ña ko dooree di muñ ndax boo sëy jee du la sonal. Mm-hmm. man c'est sa que je me dis fi nga nekk Penda say sœur ñu ngi fa mm-hmm. say frère ñu ngi fa danañ la def lu la metti mm-hmm. soo ko muñut boo génnee si biti doo muñ dara donc li ngay muñ muñ ko ci biir kër gi nag ko commencé ko foofu comme ni ko Asta waxee muñ ko dañ koy jàppale Penda mais aussi dañ euh, koy parce que ku muñ muñ ndimbal da cay fekk loxoy borom da cay fekk loxoy borom euh, sama gis-gis côté boobu mooy

liggéey fóotal bale togg toggal am jëkkër yoo xamante aussi bëgguñu seen jabar génn wuti liggéey wuti mooy xam nga foyer ñu mhm. toogu di yàgg donc loolu ñu mënti gis rek waxtaan waxtaan waxtaan la communication moo ko lal donc ñu waxtaanee ba juboo mhm. yow mii ñu seetaan bu sa jëkkër nangoon ma wuti occupation mhm. wuti loo jàpp ni ci moom ndimbal la ci yow aussi ndimbal la ci njaboot bi mais aussi bu nanguwul te yàlla xéewalee na ko lu lay dimbalee yow sa njaboot loolu nga sëy ndax say kër jaamu yàlla waaye moom bu baaxee rek mañu mi ngi mu mbokk yi ça fait un plaisir ñu ñëwaat ginnaaw page pub bi wala sax bi nga xamante nii am nañu ko del siwaat suñu plateau marché comme ni ñu koy defee rek saa su ne tey rek dañu am gan bu am solo ak koo xamante nii rek mën nañu ne jigéen ju mën góor la te laa la ñu koy wooyee ne coiffeuse ne moom nag na mu di groupe afro nappi xëya di liggéey liggéey bu am solo jëm ci coiffure bi nga xamante ni jigéen ñi temps yi jël nañu ko ndax na gis nañu preuve bi ci nga xamante ni rek moo de suñu doom day euh, béya ndax defal na ko defar bu mucc ayib macha allah dañ koy daal di nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog askan yi nga xamante ñu ngi koy seetaan Della nuyu nañu la. Bonjour Della. Bonjour. Ça va Oui, <laughs> ça va bien, merci. Et les affaires Ça va, grâce à Dieu. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> euh, Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Euh, donc, euh, vous le fêtez comment en tant que femme, mais aussi en tant que mère de famille euh, ah oui, aujourd'hui c'est la fête, euh, la journée des femmes et je suis vraiment très contente d'être là. Je, suis, je remercie Dieu d'abord euh, de m'avoir donné le souffle de vie, d'être euh, là vivant ce jour, à ce jour le 8, le 8 mars. Voilà, je le fête bien, comme, comme vous toutes ici présents. Mhm. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qui est Della <laughs> Euh, je me nomme euh, Madame Zegbla Dela, Je suis togolaise. Voilà, je suis coiffeuse. Et je suis à Kaolak. Mhm. Voilà. Ah, vous êtes euh, la directrice du groupe Afro Napeheya. Oui. C'est un groupe qui fait du coiffure féminine. Oui. Donc, ça date de de quelle année Bon, je peux dire d'abord. Euh, depuis 2005, j'ai eu mon, diplôme de coiffure au Togo, à Lomé. Et je suis venue au Sénégal. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait la formation euh, à l'école Yacine Coiffure de Dakar. Euh, l'histoire de connaître un peu la coiffure sénégalaise. Et après, j'ai eu mon salon à Dakar où j'ai travaillé des années. Et après, on a affecté mon mari ici à Kaolac. Je l'ai suivi avec ma famille. Et arrivé ici à Kaolac, euh, j'ai vu que il euh, y, a, des femmes. Mhm. Euh, beaucoup partent à Dakar pour aller se faire belle, surtout naturellement. Mhm. Voilà, c'est là que j'ai décidé de d'aller me spécialiser en API parce que à la base, j'étais coiffeuse, euh, comme toutes les coiffeuses, euh, je tresse, je coiffe les cheveux défrisés mhm. avant que la tendance euh, nappie ne sorte. Voilà, donc arrivée arrivé à Kaolac, j'ai vu que les femmes partaient à Dakar parce qu'ici, il n'y avait pas un salon spécialisé en nappie naturel, il n'y en avait pas. Mhm. Du coup, je suis partie en Côte d'Ivoire me spécialiser. J'ai fait euh, une formation de six mois en Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis revenue au, à Kaolac mm. pour pouvoir euh, vraiment euh, satisfaire les femmes kaolakoises. Parce que je les aime beaucoup. Elles sont trop aussi, on gentilles. on t'aime très, très, très, très, très, fort, ah, on t'aime très fort. Est-ce que vous en sortez avec le métier ici à Kaolac euh, c'est vrai que c'est pas facile. Au début, c'était pas du tout facile, mais bon, jusqu'à présent, c'est pas facile. Hein. mais bon, je, rends grâce à Dieu mhm. parce que avec l'aide des femmes sénégalaises, mhm. j'arrive. Euh, à m'en sortir. Ça, je, rends grâce à Dieu. Voilà, les femmes sénégalaises sont vraiment très, très, très, très gentilles. <laughs> Ok, tellement gentil, Marcella, d'avoir répondu à notre invité Béa. Si vous avez des questions à poser. Alors, Della, je voudrais savoir, quel a été bon, vos débuts Quel marketing avez-vous adopté euh, par rapport à votre stratégie euh, clientèle, côté client et tout Ok. Euh, je peux dire que au début, comme je viens de le dire, c'était pas facile. Mhm. Mais bon, j'ai eu, au début, j'ai eu quelques femmes qui sont venues mhm. euh, faire la tête et elles ont apprécié, mhm. elles ont aimé. Et c'est par là qu'elle m'envoyait. J'ai pas fait, j'ai pas fait depuis pub. Hein. <laughs> C'est de bouche à l'oreille, l'accueil vraiment. Euh, selon ce que mes clientes me disent, d'abord mhm. l'accueil, euh, oui, l'amour, comment j'aime mon travail, voilà, et la manière dont je, faisais bien les tresses, voilà, c'est ça qui a fait venir euh, d'autres clientes, d'autres clientes, d'autres clientes jusqu'aujourd'hui. Voilà pouvez euh, nous dire euh, dans l'entrepreneuriat, surtout euh, dans votre secteur qui est la coiffure, le bien-être, l'esthétique et tout, qu'est-ce que vous pouvez plus nous en dire <laughs> Qu'est-ce que je peux dire Oui, vous avez galéré, vous avez eu des problèmes. Comment ça a été mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a forgé Qu'est-ce qui vous a motivé à, mm-hmm. comment dire, à vous faire un terrain ou bien un chemin dans ce milieu, surtout à Kaolack ça n'a pas été du tout facile, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mm. Alors, qu'est-ce qui, qui, a été euh, votre motivation première mm-hmm. euh, Ma motivation première, je peux dire que c'est euh, d'abord, euh, la manière dont je voyais les femmes aller à Dakar, elles n'ont pas le temps, mais elles partaient, elles galéraient quand même aller à Dakar, aller se faire euh, belle. Mhm. Je me suis dit, voilà, je vais, je vais me lancer dedans. C'est vrai que c'est pas facile, mais je vais patienter. En fait, c'est la patience, la patience en fait. J'ai beaucoup patienté, voilà. Okay. Mhm. Adela. voilà, <laughs> Adela, je vous salue. Oui et euh, vous faites de très beaux tresses, hein, machallah. Merci. à les mm. Mais au fait, ma question c'est euh, comment tu parviens à gérer euh, la famille et le boulot <laughs> C'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, surtout dans le domaine de coiffure, mhm. parce que des fois, je suis au salon jusqu'à minuit, mhm. je suis au salon jusqu'à 2 heures du matin. Mhm. Mais bon, je remercie également mes, mes collaboratrices, celles qui travaillent avec moi. Je, remercie Nabou, Awa et Marie. C'est des femmes euh, braves et qui m'aident beaucoup. Voilà, euh, j'arrive... Euh, à, mettre... Euh, j'ai mis en place, euh, en fait, euh, je, sais comment gérer, je sais comment gérer. Et puis voilà, je sais comment gérer. J'essaye de, de, m'organiser, d'organiser la maison. Je me réveille tôt, je prépare mes enfants à aller à l'école, je, je, fais à manger, je prépare tout ce qu'il y a. Je prépare tout avant, avant 10 heures. Voilà, et je pars au travail. Bella est voilà. un bon gestionnaire. Oui, ah, oui, Bella, <laughs> euh, d'abord, on te souhaite le bienvenue. Merci. on te dit Machallah. On a vu tout tes travaux. Merci. Euh, moi, ma première question, c'est est-ce que euh, tu, tu, te vocalises seulement sur les tresses Tu fais pas des ongles, des cils Oui. Oui, on fait tout. Je fais tout. Je fais les dreadlocks. Je fais les sister loss, Voilà, je fais toutes les coiffures. Voilà, on fait des ongles, on fait mhm. soin de visage, on fait maquillage, on fait tout. Voilà. Et ma deuxième question, c'est comment tu fais à convaincre, comment tu fais à convaincre mon cher jusqu'à... Euh, à convaincre monsieur pour arriver là, sur le plateau ou bien euh, sur, son boulot. Sur Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas que la travaille. Ok, je rends grâce à Dieu pour cela aussi parce que mon mari, c'est un homme euh, compréhensif, il comprend bien. Mhm. Parce que déjà au début, au début quand j'étais jeune, quand j'ai laissé l'école, euh, c'est la coiffure que j'ai adoptée vite fait. Et quand on s'est rencontrés aussi, euh, j'étais en apprentissage et c'est grâce à lui que je suis sortie. C'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui a payé ma formation, c'est lui qui a tout payé. Voilà, jusqu'au mariage. Il est galant. Oui, oui, oui, oui. C'est lui qui a tout payé. Et après, la dot, le mariage, et voilà, euh, il m'a amené ici. Même ici au Sénégal, quand je devais faire la formation à Yacine Coiffure, il était là, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Il, est, il était là, c'est lui qui m'a inscrite, c'est lui qui m'a tout fait. Vraiment, je, lui dis merci. Donc, euh, c'est pour dire qu'il comprend, il n'a pas de problème. C'est un exemple dans la société. Oui, oui. un, des sujets de notre euh, Mhm. aujourd'hui. Euh, les maris qui, n'apportent pas mhm. leur soutien à, leur femme. Mhm. Bon, c'est un peu difficile, ça rend, euh, restreint l'activité de la femme. Euh, et, une femme a besoin d'épanouissement. C'est pas que je suis dans le ménage chaque jour tu refais la même chose, c'est pas ça l'épanouissement mm, mm, quelque mm. Il faut se soutenir. Le mariage, c'est des soutiens des deux côtés. Vraiment, chapeau à monsieur. Monsieur on lui rend hommage aujourd'hui. Merci. à merci. Euh, euh, dans la journée du 8 mars. Mm-hmm. Vraiment, euh, c'est une belle initiative, mm-hmm. franchement. franchement. Della, qu'en pensez-vous de la rôle d'une femme dans une société pour ses enfants, mais aussi son mari et sa belle famille aussi Le rôle de la femme dans une société Bon, le rôle de la femme dans une société, d'abord, c'est... D'abord, aider son mari. Hmm. Quand on t'épouse en tant que femme, ce n'est pas seulement venir orner la maison et tout, hmm. non, hmm. mais euh, soutenir son mari, voilà, euh, euh, soutenir la maison financièrement et hein, surtout quand et je pense que toutes les femmes doivent travailler. Il faut pas juste rester à la maison et dire que j'attends monsieur pour le monsieur seul ne peut pas suffire. Voilà. Donc, euh, je pense que la femme doit travailler et soutenir son homme. N'attend pas toujours que l'homme donne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent mais qui ne donnent pas, mhm. qui ne contribuent pas à la maison. Moi, chez moi, il n'y a pas ça. Mhm. Moi, chez, moi, je contribue à tout. Mhm. Ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, on a instauré. C'est Ça ne me fait rien. C'est nous-mêmes, on a instauré cela. Et aujourd'hui, je suis en paix dans ma famille. Je rends grâce. Donc, je pense que toutes les femmes doivent faire parce que les hommes aussi, c'est pas facile pour eux. Hein. Eux aussi, c'est des, c'est des enfants d'une de, de, famille. Hein. Donc, euh, on a ah, besoin, voilà. Il on doit s'entraider. Oui, euh, voilà, on doit s'entraider dans la famille et aider la belle famille. Vraiment être exemple pour euh, ses enfants, être exemple pour d'autres femmes ailleurs. Mm. Voilà. Comment vous vous faites avec l'éducation des enfants à la maison Puisque le matin, tu vas au travail. Mhm. aussi, ils vont à l'école. Mousset aussi, il va partir au travail. Mhm. Donc, quand est-ce que vous vous, vous ressemblez encore dans la maison le soir mhm. pour euh, bien conseiller les enfants, bien discuter avec euh, sur l'actualité Bon, aujourd'hui, Dieu merci, il y a le téléphone il y a le téléphone. Donc euh, voilà, le matin déjà, quand on se réveille le matin, première des choses à faire, c'est de prier. On prie ensemble et on partage une parole. Je suis chrétienne. On partage la parole de la Bible qui accompagne les enfants durant toute la journée. On leur donne les conseils qu'il faut. Voilà, ça c'est la première des choses qu'on fait. Et la deuxième, je viens de le dire, que je fais à manger, je fais tout. Donc chacun connaît son plat. Quand il revient, il sait ce qu'il doit faire. Ma fille, j'ai une fille de 16 ans, 16 ans, 17 ans. Elle sait ce qu'elle, à son retour, elle sait ce qu'elle doit, faire. Voilà, je donne tous les consignes à la maison avant de partir. Avant de partir. Et déjà au boulot, à 13 heures, j'appelle ma fille pour lui demander, tu es là tes frères sont là, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils ont enlevé leurs habits, est-ce qu'ils font la sieste Voilà, je pose toutes ces questions. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour dire que c'est vous dire que j'ai toujours un regard à la maison. <laughs> C'est quoi votre Parce y a beaucoup de femmes qui peinent à gérer, ils peinent à contenir leur maison, mhm. l'éducation des enfants. Le, travail aussi. voilà, ça mhm. c'est un, un, problème ou bien un, aspect qui euh, pousse les hommes à dire que non, ça de déjà Comment ça fait pour, euh, pour réussir euh, tout ça Comment j'ai fait pour réussir à gérer la, maison, la, maison, foyer, je pense aussi que c'est l'éducation. Hein. C'est l'éducation. Nous, au pays, on nous a éduqués. Nous, au pays, on n'a pas de bonne. On ne prend pas de bonne. Et jusqu'à présent, j'ai pas de bonne chez moi. Ah non, j'ai pas de bonne. J'arrive à gérer le salon et la maison. Mhm. Donc, je peux dire que c'est l'éducation aussi. Mhm. C'est l'éducation. Hein. Moi, ma question, c'est puisque vous êtes femme. Donc, euh, je voudrais savoir euh, comment tu trouves les divorces d'aujourd'hui Parce qu'actuellement, il y a trop de divorces. Mhm. Euh, pour vous, c'est une manque de communication ou bien c'est parce que l'amour n'existe pas dans les couples Ou bien, qu'est-ce qui est à l'origine de cette fléau-là Ce qui est à l'origine, je pense que les filles sont trop pressées mhm. d'aller au mariage. Il y a mhm. ça aussi. Elles ne sont pas matures en fait, les filles, quand elles voient euh, les couples, elles pensent que c'est trop bling-bling, c'est trop facile. Et elles sont pressées, <laughs> elles sont pressées d'aller au foyer. Moi, aujourd'hui, quand je vois euh, une fille qui, va se marier, qui n'est pas âgée, moi, je pleure à sa place. Vous vous êtes mariée à quelle année C'est vrai, je me suis mariée très tôt. Moi, je suis mariée à l'âge de 19 ans. Mais je peux dire que en ce moment-là, j'étais un peu mature. Voilà. Je sais ce que, déjà à 19 ans, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. J'avais dit à mon Dieu que moi-même déjà à 15 ans, je parlais avec Dieu. Je disais, <laughs> je disais à Dieu que je vais me marier à 19 ans. Je veux avoir 5 enfants et je vais dire ça sur le plateau parce que je sais qu'il y a des gens qui me <laughs> J'avais dit que <coughs> déjà à, 18 ans, je disais à moi-même que l'homme qui va me dévierger, c'est lui qui va me marier. Voilà, c'est ce que j'avais dit à moi-même. Mhm. Et c'est ce qui est arrivé. Je rends grâce. Mhm. Voilà. Donc, pour dire aux femmes, aux filles, elles sont pressées d'aller au ménage. Ce n'est pas facile. Mhm. Aller au ménage, c'est que toutes les responsabilités de la maison sont sur votre épaule. Mm-hmm. Le monsieur dans sa tête, lui, c'est d'aller et chercher et amener. Mm-hmm. Tout ce qui concerne la maison, ça ne le regarde pas. lui, c'est comment te rendre heureuse, c'est mm-hmm. comment rendre les enfants bien. C'est ça. Donc tout, tout, tout, tout est sur ton épaule. Et Donc, là, moi, en tant que célibataire, j'ai peur là. Hein. Non, non, non, non, il faut pas avoir peur. Il faut <laughs> juste. Non, non, non, non, il faut pas avoir peur. Il faut juste apprendre. Mm-hmm. Il faut pas avoir peur. Donc, je pense que les filles, elles doivent être posées, mm-hmm. apprendre, mm-hmm. chercher, comprendre bien avant d'aller dans le ménage. On dit parfois aussi, elles sont matérialistes. Du fait que. Euh, qu'elle ne peut pas rester euh, pendant longtemps dans une couple. Matérialiste, c'est que calculatrice, quoi. Elle calcule trop, genre, mm. euh, si tu n'as pas d'argent, ben, un travail stable, mm-hmm. Moi, non, je ne pense pas parce que je dis, avant d'aller là-bas, ben, elle savait très bien que le monsieur n'avait rien. Mm-hmm. Bien sûr. Elle sait que le monsieur n'avait rien si le monsieur était riche, riche, riche. Mais il y a des messieurs qui ne disent pas normalement la situation Mais voilà pourquoi je dis les femmes sont pressées d'aller au ménage. Pour aller au ménage, Prends le temps d'étudier l'homme. Mm-hmm. Il ne faut pas être pressé. Mm-hmm. Parce que si la femme a bien étudié l'homme avec qui elle est, elle doit vraiment connaître tout de ce monsieur-là. Connaître tout, tout, tout, tout, tout de lui. Mm-hmm. Dans le foyer, c'est pas maintenant qu'elle sera surprise, dit « Ah, donc, il, n'avait pas ça. Même si tu, si, tu ne vois, s'il ne t'avait pas montré tout ça, et que tu rentres dans le foyer, tu te rends compte que c'est zéro, il n'avait rien. Moi, tu dois tout faire. Ensemble, tu dois tout faire pour rester mm. là-bas. Pour que ensemble, vous ayez ce que mm. toi, tu veux. Construire quelque chose ensemble. Euh, quelles sont tes relations avec ta belle famille Macha Allah. <laughs> <laughs> Avec ma famille, euh, oh, c'est autre chose. Ça, c'est notre débat. Parce que euh, moi, je vous ai dit, à 19 ans, j'ai quitté ma famille. Mm-hmm. Je suis allée chez ma belle, ma belle famille, m'adore ma belle-mère. Non, mon Je vous souhaite une très bonne oui, oui, ah, Aujourd'hui, c'est une occasion pour mm. célébrer la femme, les droits de la femme. Mm. Alors, Della, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous, pouvez nous dire sur les droits de la femme Quoi exactement sur le droit de la femme. Par exemple, euh, à part le droit d'éducation, le droit d'avoir un salaire égal, mhm. le droit d'avoir une santé mentale et physique. Mhm. Donc, vous connaissez euh, d'autres droits, euh, c'est pour destiner euh, uniquement pour les femmes. C'est destiné uniquement à la femme. Bon, moi, ce que je demande pour les femmes, c'est que qu'on nous laisse s'exprimer. Mhm qu'on nous laisse, oui, qu'on nous laisse s'exprimer. La mhm. femme est trop étouffée en fait. Mhm. Mhm. on Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui sont battues, mais qui ne peuvent pas parler qui ne peuvent rien dire. Il y en a, quand, quand elles vont chez leurs parents, disent « Maman, mon mari m'a fait ceci », la maman lui dit « Non, non, retourne dans ton ménage, va rester là-bas. Et les femmes sont battues, les femmes meurent dans leur foyer. Donc vraiment, euh, c'est ce que je, c'est ce droit-là que je demande pour. Euh, et quel conseil as à donner aux femmes quel conseil mmh. j'ai à donner aux femmes Le conseil que j'ai à donner aux femmes, c'est de travailler. Mmh. Travailler et travailler. Nous, les femmes, c'est vrai qu'on a besoin de l'amour d'un homme. Mmh. Mais ce que la femme a besoin de plus, c'est de travailler. Quand une, quand une femme travaille, elle est épanouie. Elle soit est mariée ou pas. Oui, qu'elle soit mariée ou pas, elle est épanouie, elle est bien rien ne peut la filtrer. Elle est bien, quoi. Mhm. Donc, je demande à toutes les femmes, même si tu as 100 francs, mhm. va acheter quelque chose pour revendre. Mhm. Voilà. Que chaque femme met la main, que chaque femme travaille. mu ngoog comme ni ngeen ko déggee Della moom la ñu invité mu nekk coiffeuse boo xam ne dafay yëngu euh, ci ay xeetu coiffure yu bare bare bare nee naa jot nañu sànq exemple bi nga xamante ni moo di béya voilà yi nekk gisandoo mu nekk loo xam ne dafa baax ci été bi surtout tàngoor bi mais aussi dafa oyof ci weeru koor bi nga xamante ni mi ngi ñëw donc bu ngeen ko bëggee gis mën ngeen ko fekk Cœur mu defal leen coiffure yu am solo euh, ci li nga xam ne moo di prix yu mucc ayib ndax nag mi ngi nii ak mën a lu teew ñuy netaal dina leen jox balaa moo dem numéro am ak fi nga xamante ni foofu ngeen koy fekk bu ngeen bëggee coiffure yu yomb ak yu mucc ayëpp ñëw ci li nga xamante ni moom moo ak tàngoor bi kon Béya mi ngi nii ñoo ko gisandoo. voilà Della alors euh, on est. ça a été un plaisir de vous mm-hmm. recevoir aujourd'hui. Partager <laughs> Quelque chose de nouveau, je dirais bien, ici à Kaolak. Alors, vous voulez hésiter, me leen. Mm-hmm. Mm-hmm. ma Je kon euh, mu adresse numéro de téléphone et tout. Comment euh, les clients ou bien la, population de Kaulak pourront faire pour vous parvenir? Voilà, nous sommes euh, au cœur de ville à l'entrée de la foire. Dès que vous arrivez devant la mosquée, vous nous appelez sur euh, le numéro. Oui. Mhm. Vous faites à gauche. Mhm. D'accord. Mhm. Le numéro c'est 77 712 62 26. 712 62 26. 712 62 26 donc numéro bi mu ngeen mën a jotee ki nga xamante nii rek moom moo di Della nekk bokkoo ci groupe afro Nafiheya muy def ay coiffure yu am solo mucc ay weeru koor baa ngi ñëw man sama genre on fait tout absolument on fait tout mhm. on fait le le traitement le traitement de cheveux voilà euh, traitement de cheveux nappy mhm. traitement de cheveux euh, défrisés mhm. on fait tous les tresses surtout pour euh, la chaleur de Kaulak, Il y a les twists qui sont là et il y a d'autres coiffures qui sont proposées. Merci.

en tout cas, ça fait un plaisir, vraiment. Ah, ça fait un plaisir euh, que tu sois parmi nous. Merci, c'est Merci beaucoup, Antoine, Une Comme je voulais, euh, euh, comme je t'ai dit, tout à l'heure, hmm. nous allons venir à Mars, hmm. Asta, Degen, Oumi, Yaman. Nous allons venir à Mars. oui, bien sûr, bien sûr, nous allons venir à Mars là-bas. Pour vous rappeler le numéro, c'est 77 712 62 26 mm. de la ak groupe afro nappi xëya mi ngi nekk de ville ci côté mosquée bi bu mhm. ngeen fa demee rek di ngeen am coiffure ya, allah kon jërëjëf jërëjëf macha allah mungo ngoo ku jërë ngeen jeuf merci beaucoup yow tam baye ngoon fete ci parti xarala gi li ngay def amna solo machallah yaangi participer nak ci li nga xamanteni modi journée internationale bi numéro baangi nonu pour bu ngeen beugé participer ci bi la émission rek def ay témoignage dem ci ñi nga xamanteni ni seen jabar lañ bala seen yaay seen rak bu ngeen beugé rek numéro baangi ngi nii mën ngeen dugg jokkook ñun ci kawlak TV dañuy def nak wax ak nga xamanteni ni fi indi xetu bax bax yi nga xamanteni machallah macha mu ngi ci taal bi ndax ku ne bax bax baax baax lay doon touray NUGET ak yi nga xamante ni moom la ñu wooyee surnaal la kër yi aussi mi ngi ci biir donc mu nekk loo xamante ni Bella xaw ma sax astafurla ah, ah, Beya ah, dox na ci ba ñoom koo xamante ni mi ngi liggéey ci fànn bu ni mel lataloon na dañu daal di dalal ummi mhm. nuyu ko macha allah comme ni mu la waxee sànq rek noir bi moom kontaan naa ci <laughs> merci tuddee naa leen ko damaa dem seetiwaat sama maam yi rek. bëgg naa lii de bëgg naa lii de bëgg naa lii de. sama sama rakk ji ma habillé jëndal ma yi waaw sama rakk ji mbay yaaram borom kër de ville. moom daal moo xëy def ma di rek ne ma jugal nga dem. def ci yàlla jàmmam yàgg. amiin salaamaaleykum waa Kaolack comme ni ñu koy defee à chaque fois rek di leen nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aaday nuyu ñi ma bokkal plateau bi muy sama naataango yi Mbeya sa teyar naxu la de de même que Penda. garaambu bu tuuru na ah astar ne tey daa dooj moom <laughs> <laughs> mais mais gis naa suñu dëggeen chimère tamit suñu maquilleuse bu mag bi xale ku ci kanam ku ci sa kanam belli rek moo fi jaar waa gis nga <laughs> naa leen yéen ñëpp di nuyu bàyyi moo rek dax ne waaw maa ngi leen di souhaiter une bonne fête. merci euh, lañu wax moom ñun ñëpp ci lañ. Mm. donc ñun ñëpp nañu souhaiter waat suñu bopp kenn ku ci nekk am nga droit souhaiter sa bopp. bonne fête ñu ngi la koy aussi ñi ñuy uh-huh. seetaan bu baax a baax. mu nekk loo xamante ni nag indi nañu ko fi wax naa leen ko sànq li nga xamante ni classe Baye Mor yi moom la ñuy war ko bëgg lool lool fu ko gis du ko bàyyi man daf ma jaaxal. bàyyi sama ma ko fa bëgg lii. mën nañ nag faaxartu jeeg gi moo ko fee indi asta li ñu bëggoon nga xuusal ñu ci ndax lii moom li gën a bëri ci biir néeg lañ koy gis mais aussi bokk na ci li nga xamante ni dafay jox jigéen feeling Les am qui sont spécialisées seulement pour ça. Mhm. ay bax bax yi nga xamanteni ndax été ci li neexal mais aussi bu ñu été surtout femme sénégalaise. Mhm. li ci asta lan la. <laughs> Senda. Mhm. lii la ñuy wooyee janjal yi. nee naa jéeg bu ko amul sën yi xoolaata sa bopp. Mhm. <laughs> mais nag dafa bokk ci sëy sànq ni ko waxee dafa bokk ci sëy dafa bokk ci femme sénégalais. Mhm. bu ñu bu ñuy bu ñuy définir ci néegu sëy euh, lii ci lay bokk. fer

cuuraay ci ci ca charme ba yow def ko fa rek affaire bi di xeeñ neex ah numéro bi ngi nii sër yi nga xam ne dafa oyof neex a woddoo ñu koy wooyee sëru sëru sëru nal la sër yi nga xëy ngoon rek sa danaa ko def sa guddi bi ak a dooj def sa talon di coquette coquette xaaral ma yam foofu mais yow question yow célibataire nga wala marié man dama ko bëggoon jël antenne après man man maa jaax waaw moo ngi nii toog ngeen mu ngi noonu faa xaritu jéeg ji nee naa leen képp ku xaritoo faa doon sa xaritu jëkkër waaw ndax du la taraa bi moo ngi nii macha allah waaw waaw waaw asta ñëwal ci bii bii léegi rek lay dox waaw ay eh, béya doo wax ñu ñu bàyyi ma tamit <laughs> damay man damaa tiit dama la baax demee sa xel. célibataire bi bi conseil ay ma cay da ngay sopp. Mm. waaw dëgg la waaw surtout bu ma demee bañ muur ma ba yóbbu sama kër ah. may sa loo yor lul fi ay per dong fi ne jarul ko. yow may sa xam yi. Ah. Eh. may sa eh. yéen la xam. lii ak lii lan lañ koy doyee aussi. lii ceeb bu nekk xam nga war nga war ngay gànnaayoo drap bu weex tàll. Mhm. bu guddi jotee alaaji day sonn. Mhm. bu wàccee nga lalal ko drap bu weex tàll. sànnil ko ci lii. Ah, ah. muy flotté si kaw lal bi nii. ah da ca jàll nag moom. sànni ko ci noonu moom nuñ koy woowee sax Paa xaritu jéeg. waaw Paa xaritu jéeg fan la nekk exactement. kooku mu ngi marché central. Mhm.

jigen nga tay dañ lay souhaité wat bonne fête ci li nga xamanteni bokku nañu ko nga yañu lol ma sha allah. def ala tout couleur tek suma tay suma baaxu maam danga ma def nak mais nak grawul dina fayu. lan mu ñu mëna wax ci tollu way jamono jigen ci bir kërëm ban anam la wara taxawé ak ci jamono ji tembé ne taxaway yu ndaw yu melni ñun té nek ay jigen wala comme ni nga ko waxee rek euh, taxawaayu jigen surtout ngay di ndaw ci bir kër jigen en fait quelque sorte mom moy rassembler lépp.

yéen bu ngeen génne ku dul tëgg promotion bu leen wax du leen ko gëm. ah non non. bàyyi yooyu. on leen wante. yaa ñu coaché yaa ñu coaché da ngay nangu. baax na ah Oumy. kii dafa fàtte xale bi ci boppam moo lekk. moo lekkale noonu nga di souhaité waat tamit femme yëpp rek mhm. bonne fête en plus comme li ma doon wax sànq femme moo nekk société ñun ci ñun ci jëmmi bopp ñun ñooy magasinu yàlla mhm. donc nañu defaraat toogaaye bu baax a baax xam ne lépp ci ñun la basé wu bu ñu dëngee rek lépp dëng donc nañu baax ñu defaraat ñu ba ñu gën a baax macha allah ñuy gën di jege suñu yaay yi aussi mhm. parce que tamit doom bu jigéen yaayam dañuy gën a jege suñu yaay di gën a waxtaan ak ñoom di bañ réeroo ñu suñu génération bi fi ñu toll dafa xaw a metti mooy ku ci nekk boo amee benn âge bi rek tu te dis que sa bopp mag nga te mature donc mën nga def lépp loolu te xel du doy. Mhm. tey xel bi tey xel bi may am di ko doxee mën mën mën naa nekk ak astar ma mag ko mu ma xel. Mhm. peut-être fi ma yem moom foofu lay commencé di dem. Mhm. tey ma jege ko mu wax ma dara ma jël ko bu ma ko rëy. donc nañuy gën a waat suñu yaay di bañ di am ak ñoom nëbboo. ñu ñuy gën a yeddaat di ñu gën a waxtaanal parce que jigéen dañ koy waajal. jigéen dañ koy préparer depuis bi muy nekk xale. liñ doon wax naan doom balaa moo judd aba ah, ah, voilà parce que yar ko weesuwul nga tànnal ko yaay ju baax. parce que mm. dalay leer ne la kooku bu màggee bay jëm dinañ leer ne di nekk ci yaay ji yëpp dina nekkaat. ci moom parce que xale day copier voilà xale mm-hmm. day copier surtout doom bu jigéen. Mm-hmm. lépp lu yaayam di def rek da koy def donc ñu gën ñaaxaat suñu moroom yi. parce que ñun ñëpp ay ndaw lañ peut-être dañ cee gën a sob rek wala yàlla nattoo ñu ñuy wax rek mais ñi ñuy waxal yëpp ñoo ñëpp xam-xam mm-hmm. donc nañ leen gën a ñaaxaat ku ñu gën a jege di gën di waxtaanaat ci suñu biir di gën di waxtaan ak suñu yaay ñu bañ di am réeroo wala mm-hmm. barrage di ci am mm-hmm. man je pense que diggante waajur bu jigéen ak doomam bu jigéen barrage amu ci nag boobu mu ci am parce que tamit bu jëlee lépp ne tabu la kañ la ñuy waxtaan ak suñuy doom. mais ak société bi fi mu toll nii y a des yoo xam ne am na ay sujet duñ ko nangoo wax ak seen doom. parce que ñu jàpp ne seen xarit te peut-être ñoom seen xarit boobu ñooy tolloo même niveau de connaissance bi ñuy am wala sax yow miy dem di ko wax sa problème yow yaa koy ëppale xam ci société bi ni muy tëddee. il faut savoir que ñuy jàppee tabu. Mm-hmm. bañ ci waxtaan ak sa doom. Mm-hmm. xale yi am nañ lépp de. dëgg la. genre astaay. merci ak ay téléphone man xam ngay nelaw ñoom heure boobu la yeew nekk ci téléphone bi ba fajar <laughs> mm-hmm. luñ bëgg xam instant bi xam xam franchement donc li ñuy jàppee sujet tab mm-hmm. loolu nax suñu bopp la ñun ñi en premier lieu ñun ñi mm-hmm. yaay ñun ñiy jigéen loolu dañu nekk di nax suñu bopp sa doom en général da ngay toog di waxtaanam mais li nga koy yeddee ci lu bëri wala li nga koy bëgg a xamal ci lu bëri xam na ko à l'avance ba pare toog di seetaan donc nañu jéem anticiper que suñu nous sur tous les plans nous anticiper Il di a pas de sujet tabou. bu puberté puberté mais ne mm-hmm. il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Mm-hmm. nga wax li nga positif li négatif so le négatif li fait. le positif nga mm-hmm. au fur et à mesure dina gën a am ouverture ci yow mhm. dina la gën a ñeme mhm. bu ñu jël suñu problème yi surchargé ko suñu bopp ba duñu tal suñu doom yi mhm. duñu waxtaan ak suñu doom yi ñun jigéen surtout tey journée bi son des droits yoo xamante ne tey war nañ ko mën a jox suñuy doom lege leen ko may leen opportunité boobu noonu même même même bu fekkee sax dañu ko jox. Mhm. imposé wuñu ñu ko. mais dañu ko war a jëlal suñu bopp. Mhm. parce que ëllëg suñuy doom lañu ñu fiy bàyyi. Mhm. parce que tamit ñoom ñooy nekk avenir u ëllëg. mais aussi euh, bu ñu fàtte tamit euh, ne maanaam. importance bi jigéen am dafay dem ba répercuté wu ci li nga xamante ni moo di borom këram ndax yaakaar naa stade ñu nga ko sànq tey jii sa borom kër am na nooy nekk bu demee wuti day sawar a wuti tey jii am na borom am na am na nooy nekkee moom xelam dafay dal. Mhm. donc ci ban conseil nga mën a orienter jigéen ñi à ce que ñu dalal seen borom kër yi. mais communication rek. Mhm. pour man daal waxtaan lu mu lu mu solutionné wul. maanaam mhm. lu mu fajol xiiroo ŋaayoo jàppante guddeeg bëccëg mënu ko lijjanti. na ñuy waxtaan il faut être ouvert d'esprit nit da ngay ëppoon. non stress dund bi benn yoon la. li ñuy fekki fe xamuñu ko donc li ñuy xëy di dund au jour le jour nañ ci profiter nañ ci profiter ñuy dund non problème mënul ñak mais problème da ngay dem tëddi après bon elle faté nga boo jéré fekkaat ko ci donc mënuñu top problème problème problème ou bien situation situation ba kañ nga raté sa vie perdre sa joie de vivre mm-hmm. te sa joie de vivre tay comme les ma wax sànq jigéen sookul la jigen bu perte joie de vivre

comme jëkkër ak jabar ba ci relation coro sax affaire de communication là. absolument mooy base voilà mon imagine nga am sa soxna nga ba ko ci kër ga. tey sama tey man ma teggi sama teggi sama natt ne tey moom genre dama bëgg faire plaisir à mon mari donc damay dem marché duggal ko ceebu jën bu amul fenn toggal ko ceebu jën bu neex alors que man sama borom kër tey ba yéwo, yeewoo moom maafe bu tàng jër la am envie mu ngi naan tey su ma wàccee moom maafe bu tàng jër laa bëgg. maafe laa koy togg. voilà non mais le fekk que man waxtaanuma ak moom donc mënuma xam ni mu bëgg. man mm. dem naa marché jënd sama jën jënd jën fu jën chéré ma jënd fu ndugg riche ma jënd ñëw togg sama ceeb sonn si taajal ko ko dem su ma tijjee bool bi dafay découragé parce que moom maafe la amoon envie lekk c'est parce que waxtaanuma ak moom laajuma ko lan nga bëgg tey añee. moo tax tey ma toggal ko loo xam ne amatoon envie lekk ko. bokk na ci aussi xam ko xam sa borom kër. mais xam ba nga xam góowam. Mm-hmm. xam la muy bëgg su ma xëyee papa loo bëgg añee tey. la nga bëgg tey ma defaral la comme déjeuner. Mm-hmm. lii laa dee leen waxtaan. bu leen rusante de am leen complicité dama dama contre jigéen ñi nga xam ne dañuy toog ci salon seen jëkkër toog à gauche ñu toog à droite soit ñu ngi. jàkkaarloo wala nekk si téléphone. loolu mooy lan sama jëkkër fa mu toog fa lay toog ñu càppantaan. ñaqantaan lañ koy xawma. takk la lépp. bu ñu la nga déggeen déggeen euh, léegi maanaam téléphone yi daf ñuy yàqal lu bari. Mm-hmm. téléphone yi daf ñu teree sëy. daf ñu teree gérer suñu doom yi. Mm-hmm. daf ñu teree communiqué ak suñu borom kër ba sax toppatoo bi war defatuñu ko. donc ak réseaux sociaux yi man je pense que ni. Mm-hmm. dëgg la aayul. mais nag pour teg c'est bi pour pas abuser. am foo xamante ni fa la muy yem est-ce que tamit bu ñu ko toppee du dem ba yàqal ñu. li nga xamante ni moom moo dox suñu diggante suñu borom tamit di devoir. benn foofu dama ci kontaan pour ñëw ci. parce que comme li nga wax rek réseaux sociaux nekk na jamono ji ñu toll loo xamante ne ni yàq nañu. man du ma la jigéen kese. xale dangay gis xale boo xamante ne da lay leer ni kii elle n'a pas encore 18 ans. te mu ngi ci surtout TikTok bi. tu vois du n'importe quoi. tey jii ni yow ngay jigéen nekk di sëy man je ma dis que war nga sa téléphone c'est vrai mais ak heure yaa yor. munoo di togg nekk ci tiktok bi. Mhm. Mhm. sa ginaar day xam après looy wax doo xam looy wax sa ginaar mooy xam. Mhm. non non <laughs> téléphone bi da nga koy <laughs> tegee de côté. c'est que la mooy loolu. <laughs> bi da nga koy jël tegee ko de côté. nga togg sa togg ba mu neex. sa jëkkër bu wàccee nga toppatoo ko. defar ko dem man je me dis que ni comme boo toggee ba pare togg nga sa añ ba pare sa jëkkër ñëwagul temps bi ngay dem sangu defaru et tout balaa sa jëkkër di ñëw am nga ci temps pour nekk sa téléphone. Mhm. sa yenn message yi whatsapp mën nga ko tontu. tiktok mën nga dugg mais bul abusé. xoolal tuuti nga génnaat. sa jëkkër bu ñëwee jëlal téléphone bi teg de côté ignoré ko fële ne ko léegi sëyatuma ak yow maa ngi sama jëkkër. mu wàcc sa jëkkër toppatoo ko defal ko bain. Mhm. mu sangu. mu non sérieux. non toppatoo bi war dafa mu sangu.

soo paree ngeen toog pirloo waxtaan ba mu neex. Mm-hmm. bu nekkee di nelaw wala dara mën nga jëlaat sa téléphone nekk sa occupation. Mm-hmm. bu guddee yaa moomaat sa bopp nga jëlaat téléphone bi libéré ko fële. Mm-hmm. man loolu laay wax à chaque fois mais bul nekk tout le temps ci téléphone téléphone parce que même booy liggéey sax nekk ci téléphone bi tout le temps tout le temps mën na la yàqal sa liggéey waxuma la nag nga nekk ci sa néegu sëy donc war nañ cee gën a mën a bàyyi xel te wàññi bu baax a baax. temps yi nga xam mom moom la ñu passé ci téléphone yi téléphone la ñu war a sëyal wala borom kër gi la ñu war a sëyal non borom kër gi la ñu war a sëyal xam nga nag mais léegi ak fi mu toll mm-hmm. fi jamono toll la xam nga jamono nag buy dox da ngay dox ànd ak moom ci mm-hmm. benn côté ñu ci bëri seen téléphone yi dañ ciy liggéey mm-hmm. waaw ñi ci maanaam maanaam ñi ciy liggéey mën nañu comprendre d'une part béya mais liggéey bi dafa am fu mu yem aussi ndax nag liggéey toute la journée toute la nuit franchement am na fu muy yem tamit non xam nga des fois am na yenn liggéey yoo xam ne mën nga ko commencer wala su fekkee ne damay jaay man à tout moment nit mën na gis sa statut commande la dara du à tout moment nga ciy nekk tamit loolu da ciy am mais ni ñu comprendre ne fi jamono ji toll la téléphone mënut ñàkk ci biir vie bi. parce que même ñoom ñëpp mënut ci ñàkk bañ a bañ a bañ a. nekkul lu ñuy ñàkkal de mais am na foo xamante ni mën na fa ñàkk. mën na fa ñàkk non du fépp lay dem. Mhm. du fépp lay dem en fait dama dama bañ ñu globaliser ko pour ñi nga xam ne même dañ ciy liggéey sax. non non ci sentir seen bopp. non non xam nga xam nga bu ñu la waxee ne la jëkkër la ñu war a sëyal bala téléphone la ñu war a sëyal là on parle ci li nga xamante ni mooy. vie de couple négatif quoi téléphone bi war aspect négatif bi la ñuy wax loolu penda du du question en fait parce que du téléphone bi yow moom moo la takk jëkkër ji moom moo la takk donc jëkkër ji ngay sëyal moom nga war a tarbiwu sànq Asta moo ngi wax que ni communication communication Asta base la ci lépp mhm. du ci say kase même sa biir kër ñi nga nekkal boo dut communiquer ak ñoom doo mës a jubóog ñoom mm-hmm. donc ça communication ci lépp la mais am na yenn góor yoo xam ne tamit mën ngaa xëy tey ne leen bee loo bëgg a añee mu ne la toggal lu la neex mm-hmm. li ne ci xolam waxu la ko c'est parce que da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen jege waawut jege jege loowut non non wantoo mu ne la toggal nga nga yab ko mën nga mën nga koy yab mu ne la toggal nga mu ne la noo tey toggal li nga sentir góor gu am fulla su ma la joxee sama dépense nga ñëw ne ma papa loo bëgg a añee dama la koy wax soo amee fula. du ma ñëw ne la question da am fula de xam nga tey am na ci ay góor yoo xam ne am nañu yërmande mën nañu wax ne peut-être man li ma bëgg tey mu togg. Mhm. du am temps wu toggal ma ko tey dañ naan la toggal li nga senti de ce fait toggal ni mu ko gën a oyofee pour nga mën a ñëw. Mhm. def li ngay def de ce fait yow kooku tey mën na togg ba pare fekk sa xel mu ngi woon ci leneen. Mhm. xam nga loolu tamit ci biir communication bi la nekk ba tey moo lay wan ne la communication moom moo regroupé lépp ci biir ma ñëwaat rebondir tuuti ci question wu Penda mooy téléphone duñ ko sëyee mhm. même ñun ñi nga xam ne sax amaguñu jëkkër sax mhm. du tout le temps ngay nekk ci téléphone pour di mën di wax ak sa copain mhm. donc téléphone foo xam ne ci nga war a wu sa vie parce que am nga temps pour mën a defar sa kër am nga ci sa bopp et que une heure de temps tu que doo ko sentir affaire loolu yow yaa ngi rate lenn ci sa vie loo xam ne mënoo koo dabuwaat parce que heure bu dem am na lenn

un jour dama déglu benn euh, béya muy débattre ci à ce que téléphone la ñuy liggéeyee mënul ñàkk mm-hmm. téléphone la ñuy liggéeyee mënul ñàkk mais yow mi ciy jaay am nga waxtu boo war a jox say client heure boo xamante ne bu ñu la woowee jot la bu ñu commandé dinañu la jot bien sûr heure boobu noonu béya je pense que ni la ci des bu fekkee sa borom kër am nga ko moom ko war a consacré même si c'est pas dans le cadre du mariage hein mm-hmm. il faut un temps de repos pour chaque personne. Mm-hmm. Mm-hmm. nit qui passer toute la journée sur écran ça fatigue le cerveau. ça mm-hmm. énerve dañuy sonn. il faut te reposer soit ou bien soit tu t'occupes nga euh, nettoyer ranger ta armoire ce sont d'autres occupations ça. ce sont des modes d'épanouissement c'est pas seulement le téléphone qui épanouit la personne. il faut nous def la part des choses. WhatsApp dañ que régulé. tu travailles via la vente en ligne tu régules ça mm-hmm. comme heure d'ouverture espace boutique tu ouvres à 9h mais comme c'est comme WhatsApp hein j'ouvre à 9h heure de fermeture c'est 18h ou bien 20h à 20h tu tu tu tu déconnectes absolument voilà le Tu voilà tu nga def ci parce que sa néeg munoo ñàkk loo fa rangé mm-hmm. sa armoire doom yi munoo ñàkk loo fa lijjanti waat mm-hmm. tu regardes le menu de demain tey togg nañ li ci gën a bon da ngay bàyyi kër gi mu tilim ma tilim ma tilim bay bëgg da ngay tilim ma tilim ma tilim ba bëgg man man ah, moom franchement man franchement moom mm-hmm. problème TikTok man awma problème boobu rarement laay dugg néna you ne TikTok le plus de leur temps YouTube le plus de mon temps. Mm-hmm. très franchement. voilà c'est ça mais sur YouTube ça, man ça me fait perdre du temps à mm-hmm. zéro hein. mm-hmm. je regarde quelque chose d'intéressant wala may prières soit ma télécharger ay depuis euh, Rome. moi à cœur.

suñu rôle c'est très important. Mhm. voilà dafa am solo comme ni ñu koy waxee yaay dafa am solo ci doom moo xam doom bu góor la wala parce que tamit doomi góor yi ci la ñu bokk de euh, da ngay gis doom bu góor boo xamante ni yaay ji lay gën a jege papa ja nga gis doom bu jigéen boo xamante papa ja gën a jege ki ni yaay ji kon euh, bu ñu focaliser rek doom bu jigéen parce que doom bu góor aussi. yaayam daf ci am solo te dafay jege yaayam doom bu góor. donc dafay gis euh, ni yaayam di dundee gis aussi ni papaam di dundee mu di ci jaar mais aussi façon bi papaam di traité yaayam moom dafay bëgg a traité jabaram mm. ba sax da naan su ma amee jabar da nanga mag nag kon dafa jar ñu bàyyi xel doom yi nga xamante ni ñu ngi ci biir kër nag aussi daf ci am solo lool mm-hmm. Mm-hmm. daf ci am solo lool Penda parce que euh, xale dafay jàng li muy gis yaayam ak papaam di ko def ci kër gi mm-hmm. moom it su màggee loolu lay def parce que xale bu nekk que mu nekk bu dee xale bu jigéen la moom si yaayam lay roy bu dee ko góor ki si papaam lay roy donc yow en tant que góor ni ngay traité sa soxna yow xale bi sa doom bi nga yar si kër gi moom aussi day rêvé su màggee traité noonu jabaram mhm. su fekkee euh, yorin bu baax nga ko yor da nga koy chuchuté di waxtaan ak mom ngeen di kaf di harmonie am ci kër gi moom ku góor ki en tant que xale moom aussi day rêvé loolu na ma bëgg am comme jabar bu mel sama yaay ñuy waxtaan am ay doom yoo xam ne dañuy damay damay saafante ak ñoom di waxtaan ñoom donc lépp lu ngeen def ci kër gi day des ci bopp xale bi. Mhm. ba moom su màggee day bëgg a répéter la même chose. Mhm. donc man lenn laay wax mooy lépp lu ngeen di def ak lu mën ci doon nañu ci bàyyi xel xale yi parce que xale day katte mhm. xale day day day day day day day. Euh, day revivre souvenir yi. donc nañuy bàyyi xel xale yi daal xam ne ci lañ bokk tamit daal teel Baye Mor ba ñu mayaatee clip dina ci baax ñu dem te ñëw ndax tamit ndax tey suñu bés. dañu war a dañu war a def ambiance bu am doole nañu ah, may Aïda Samb bi waaye tuuti. Aïda Samb bi mooy motiver xale yi jéggi. mu ngoog dellusiwaat nañ ci suñu plateau marché bi tey ni ñu koy amee rek comme ni ma leen ko waxee woon nekk journée bi nga xamante ni moom la ñu jagleel soxna yi waaye nag lu ñu waxtaan ba jeexata daluñ xamante ni moo di suñu waajur ku ñu tettee mais aussi ku ñu dalal ci bi télé bi ku ñu uuf ñu ñu mu wax ci li nga xamante ni rek moo di solo si jigéen am ak naka la gisee li nga xamante ni rek moom moo di bés bi ak ndénkaane li nga xamante ni dinañu ko jagleel nañu koy daldi bàyyi mu nuyoo moo di suñu bàyyi El Hadj Wade DG ñu ngi lay nuyu hmm, Penda maa ngi lay di nuyu ñi nga bokkal plateau bi di nuyu téléspectateur ak sur su Kaolack TV. Mhm. rawatina ñiy suivre édition spéciale même bu ci. Mhm. même même cadre bi la. Mhm. Euh, match show mais quand même c'est spécial. absolument spécial parce que dafa nekk lu ñu dëjee. ci jigéen ñi te ku ne au Sénégal bon wala man boog li ma gëm pour être bref. Euh, que y a un manque de respect pour am ci à leur égard a un manque de considération mm-hmm. donc bu avoir une journée internationale dédiée à la femme <coughs> même si fekkee a une polémique l'essentiel est au moins on pense à la femme aujourd'hui mm-hmm. mais comment si a un axe ak un angle la ñuy xalaatee jigéen ji mm-hmm. kooku que ci nekk libre mais pour tout ce qui me concerne la perception que mu déjà fierté lay nek à chaque fois ngay liggéey ak ay jigen parce que je le disais démb maa ngi son ben xarit ñuy waxtaan euh ne tu sais que la dara gënul assuré nga nek en sécurité ludul que tu es entouré par des femmes euh ne ko lu parce que li yalla sak jigen moo ci gën a jub mm-hmm. moo ci gëna sérieux mo ci gëna doylu baadoo la du nuyu jigen manam jigen baadoo la wut. Mhm. dama utiliser terme bu indi mais loolu mo bëgg wax mhm. ma partage ak mom parce que ño bok fuñu xalaté ño bok fuñu fu ñuy man ak moom. Mhm. donc loolu daf may remotiver encore à ce que man ma gëm li ma gëm. donc bon, ma invité sur ce plateau damay am fierté pour participer ci. mais également euh, féliciter len ci initiative bi ak organisation merci beaucoup suñu baye laaj waa di question bi la ñëk laaj rek bokku na ci rôle jigéen ci biir société bi ban jàngat na ci am. en fait euh, toutes les sociétés qui marchent jigéen moo ko téye mm-hmm. parce que kër buy dox sax jigéen moo ko téye euh, man depuis euh, 93 la am conviction ne dara du dem sans jigéen. pourquoi mm-hmm. parce que cette année ci laa découvrir ci benn réew bu nekk à. 3000 km du Sénégal que ne bi et je le rappelle toujours jigéen Mouran, daan njëkk après y a toute une histoire du nekk ci donc toutes les sociétés qui marchent yi nga xam parce que Yalla, chance à l'espace de 17 ans j'ai fait 103 pays dans le monde

fi Sénégal rek ngay ñëw góor joxe juróomi téeméer bëgg ci ndekki an ci reer ci. boo ko tegalee yàpp mu ne da nga am mbaraan ko fay. wallaay dëgg la. donc baadoolu boobu nekkul ci parce que jigéen ji bu yemaloon net 2500 mu mënu am ndekki lu baax. Mm-hmm. te euh, jafe na jamono ji Sénégal nga gis góor gi joxe junni dépense. Mm-hmm. et bool bu la tegalee ndekki dalee lenn lekk na junni bi bu la tegalee añ de même bu la tegalee reer de même te tey bu la tegalee par exemple loo xam dalee leer na lii. ndawal la wala leneen ci nga commencé accuser sa jabar ne dafay mbaraat est-ce que moom mënutoon jàpp ne yaa ngi liggéey di fayeeku mënoon nga ko jox 10 joxoo ko ko la nga ko ko la ci waroon topp danga nga jox moromam non c'est-à-dire que euh, doylu boobu ak euh, sérieux boobu noonu mooy wane ne jigéen moom mooy kattan parce que ñun dañuy xëy dem beneen bi mooy bu neexoon jigéen ñi suba Sénégal du dox fonctionnaire bu ci nekk bu neex sa jabar doo xëy mën na bàyyi ba fajar mu def la loo xam ne dootoo

li yor. donc loolu yëpp rôle jigéen la ñun góor ñi taxawaal lañu la ñuy def euh, donc cela veut dire que jigéen mooy euh, mooy orbitu société bi. Mm-hmm. anam bi leen góor ñu yoree loolu rafetlu la wala loo leen di ñaax pour ñu soppi ko la ci ñenn ñi. d' ci muy man ak sama morom ci yam mm-hmm. sama bopp laa njëkkee. Mm-hmm. parfois damay traité jigéen ñoo xam ne après damay rus. parce que aw ma gàccee wax li may def alors góor mënta jox cër jigéen parce que góor dafa baadoo te baadoola bobu de nature la ci mom ci xolam la nekk xam nga nit yalla dako sak nit lepp faculté yëpp yalla dako def ci mom bu juddoo bu ci nek dafa am moment bu muy yeewu tout faculté yëpp dañuy nelaw ci nit ki faculté baadoola bi nelawut chaque jour mi ngi dem tay da nga yor jigen doko jox dépense bu mat doo wax ju neex do toog ak moom waxtaan bu la soxlaa sax pour nga sëy moom ni nga ko soxlaa doo ko joxee te yow bu toogee ñetti fan raayu la te raay bokk ci li lay bëggal nga ucc ko ci biti dëgg la waaw dala rombul foofu muy mm-hmm. dégg mm-hmm. ñaareel ba mooy mosoo gis jigéen euh, génn di yàq deru jëkkëram ci beneen góor ngir bëggante ak moom dëgg mm-hmm. mais góor gu fi am ñaareel da nga yàq si deru aaw dëgg la de parce que dafa am benn remarque boo xam ne góor ñi jigéen nit ñi duñ koy def

xeyna na jabar jigéen ji ñu am ben facette bo xam sen aw aaw ni commencer yak deru aw ba convaincre jigéen ji pour mu ñew nek ñaareel. Hmm. donc kooku bu ñew day xam aw bi fan la koy anéantiré. Hmm. pour mom top dëgg neex parce que bu ne ko aaw bi buy tégal sama yaay añ koy juutu. kee bu ñew bu ko tek da koy ram dëgg la kon kii mère bi elle préfère jël ki ram ki jël ki ko doon ah. tous tous ces choses donc lolu ba loolu baadoola rombul do hmm. baadoola rombul foofu dans euh, amna ben anecdote boo daan la ko nettee pour war na jigéen ni mu goree am naa benn xarit yàlla na ko yàlla yërëm mi ngi ci suuf eh, dafa am jabar temps yi dañu daan ànd voyage ñëw muy doxaan beneen jigéen mm-hmm. jabar ji xam na ko mais wax ko daal jour bi ñu ñëwee c'était li ma la wax ni c'était en 2007 mm-hmm. bi ñu ñëwee def ñu ngi defee suñu programme parce que dañoo jël avion wàcc Maroc jógee Maroc wàcc Côte d'Ivoire mm-hmm. reer bi Côte d'Ivoire lañu ko organisé boobu yegg seegu Sénégal. ngeen organisé lan Côte reer bi war reer si Sénégal bi <laughs> Côte d'Ivoire ci biir aéroport bi. donc mais avant ñuy ñëw. Mhm. moom jabaram yëg na lépp. lu ko ko wax. kenn xamul. jabar ji jóg dem marché jëndal ko ensemble bu bees ful ak ay daal. ñaaw macha allah. kookoo mën. bi ñu ñëwee. ñëw mhm. toog programme ma dem suma kër mu dem këram. suñ beneen xarit xam naa muy dégg Ibrahima Ndiaye dem këram. ñu dem bàyyi 17h comme man plus ou moins dafa am benn statut bu ñu ma jox ñoom. ñu ñëw suma kër. bi ñu waxee mënuma léegi ma ne ko léegi da dem sa kër Ibrahima ne ko léegi demal sa kër après man dinaa jël si doyen ñu jaar sa kër. ndaw si xam na heure bi yëpp bu demee ba 19h ndaw si génne li mu ko jëndal tegal ko ci kaw lal mu sango ba pare. dem ah. bëgg ya. hmm. oh, hmm. mu ko non bul sol lii sol ah mu sol mu jox mu bëgg ba ci daal da koo jënd macha allah parfum bu bees jox le pend du ko def ñu dem biñ ñëwé tok biñ ñëwee ñun mu jëndal ñu boisson ñu naan après ñu génn taal suñu auto dem biñ démé nak té ndaw ci jël na auto top ñu ay way ngeen dee de ngeen dee kay ba biñ ñëwee ba ci buntu kër gi ñu taxaw gaare wacc dugu mu ñëw ba à quelques mètres mu taxaw taxi bi bon bi ñu ñëwee ci kër gi daal mel ni bon un président de la république qui est revenu coow lii kii ndaw si dafa bàyyi ba reer bi jot ba ñu teg palaatu ginaar yeeg ba ñëpp toog ci suuf mu dugg ci biir kër gi ah, ñëw salaamaaleykum laajte ndaw si ni moom lay seet bon comme on était en effervescence yaay daw si ne ko non dafa am ay gan dama toog xam naa ko mu ñëw bool bi ñu tegal mhm. mu ñëw toog ñu ubbi bool mu ànd ak ñu di reer eh! oh. daal deful lu dul mat. Ah, mat na tey na aussi na ko lu dul mat daal defu ko. si ma daal ah. na ñun di reer ah. ñu reer ba pare ba raxasu naan boisson mu jë ci loxo jëkkër ji yëkkati ko. mais bi ngeen di reer amul ngeen conscience su reer. non man reeru parce que xam naa ne man lépp ab wax sama kaw lay <laughs> doo reer parce que elle me dira pourquoi nii ma. Mm-hmm. mais mu jëpp ci loxo jëkkër ji jóg. Mm. boobu jëkkër ji moo di caabi ji mu sànni ma caabi oto bi. ndaw si bëgg a wax ma ko déet. alalam ngay lek ah, parce que mooy jabar bu mhm. dem. biñ demee ñun biñ ñëwé biñ ñëwé ñu tok mu ñëw jëkkër ji tok su méku mu jox ko beneen yéne mu sol. Ah. mu tek ataaya courage boobu yëpp. mu tek ataaya de oo ma téléphone ne ma foog ne ma ko ñu ngi ñëw ñëw tok mu tok ak ñun nan ataaya ba légui ngaawul ci wax joj ray na len ray na leen elle a fait ben geste parce que biñ ñëwee tok mhm. ba ñëpp war rër muy xalé ñu tok dafa indi somme bi tek ndaysan li lay wan pédagogie mhm. bi ndaw ci anda mo mhm. yémi ñeu tek bon ké mom mi ngi tabaka dal de l'autre côté. Ah. bon waxu ci dara waxu ci dara waxu ci dara malheureusement ñu dem 2 ans. mom mhm. fièvre dab ndaw ci ndaw si ñaareel bi wala aaw bi fièvre mais bla nga ag bu ñu tegalee suum bi ba réaction ngénam bi ngén dégg noonu lekk ay ginaar non man j'ai pas mangé parce que c'était un peu.

dëgg la xam nga góor du seetaan jabaram génn dem ba ci kër jàmbur toog faram di rek xalaatu ko doo ñibbisiwaat. dégg nga c'est-à-dire patience boobu nekkul ci góor. cest à foofu laay waxee. Mhm. différence bi am parce que man dama ci am man man en général ma wax loo xam ne dama naan dégg naa wala li ma dund rek laay wax. Mhm, mhm. donc expérience ak yeneen ak yeneen yu demee noonu dund naa ko. dund naa ko ba nga xam ne tey. Euh, jàpp naa ne jigéen dafa nekk loo xam ne nii lu ñu war a ormal la. Mm. ci plan yëpp. alors beneen bi mooy mm, ku xam Sénégal démb parce que man fekkee naa bi Miss Nguur jar juróom-ñaar. fekkee naa bi potu meew di jar fukk ak juróom. fekkee naa bi bi nga xam ne juróomi tàngal jërëm la. lay ñëwaat. mais boo xoolee euh, ñu dem ba instant bi bi jigéen ñi commencé entreprendre def émancipation. ci la au moins sax li dund gi di chercher yëpp yow doo ko mm-hmm. parce que jigéen ñi ñoo koy de l'autre côté mais ñun baadool nañ baadool boo xam ne da ngay gis sa jabar def am entreprise di liggéey di jaay ay yére di kii mais lu mu la indil nga jàpp ne da ko jëlee ci beneen góor mm-hmm. xam nga lu indi mm-hmm. parce que góor à chaque fois bu toogee jabaram wala jigéen ji muy sax bu ci amee bànneex buy pare xelam ci beneen jigéen lay nekk

beneen bi mooy euh, góor li muy fen jabaram moo ëpp li ko jabaram di fen mm-hmm. Mm-hmm. si mm-hmm. si moo ëpp dana jafe góor génn di jëm fenn tàggu jabaram ne ko fii laa jëm bari wu ñu koy def boo jëlee cent kenn ko ci def bu ñëwee sax war la wax dara du tëb rek laal li mu la bëgg a wax dana fa nekk di xool ndax yow nii nii tourne autour ba maam li ñuy fen daal moo ëpp

wala jigéen sëy si kër indaale góor er, mm-hmm. boo jëlee téeméeri góor yoo xam ne seen jabar bi ñuy sëy si dañu indaale xale bu jigéen 70 mm-hmm. yëpp laal nañu xale boobu. Mm-hmm. ça c'est vrai. c'est des faits réels non dama la man waxuma la loo xam dama koy dama koy jéggaani parce que uh-huh. lu ma teg sama bët la lu ma arrangé la lu ma bokk ci règlement de conflit bi dama ko xam dama ko dund am na yoo xam ne man maa ko def rusuma koo wax yaa ngi dégg donc parce que man xëy na auteur bi ma am ba man a reconnaître erreur yi ma def ñeneen ñi mënuñ ko. Hmm. parce que du ma ne la musu du ma ne la aw ma jabar dem doxaan hmm. parce que dama daan am jabar di génn di doxaan yi hmm. dama ko daan def. Uh-huh. bien sûr. c' est na bépp góor hein. arrivé na bépp góor. mas naa fen suma jabar mas naa ko trahir. parce que trahison nekkul nga am jabar bàyyi ko fa dem takk beneen jabar. première trahison bi gën a garaaw. moy nga ak wala à la seconde suivante nga ba ci biti wax ko les mêmes paroles tu as trahi l'autre mhm, mhm, mhm. mais nous, duñ def attention attention que moy la trahison la plus grave parce que moment euh, le climat fonctionne ndaw si mi ngi bëgg ko wax ne ko commencé les mêmes mots à une autre personne mais mais les problèmes il y a posture bonne posture. dans et je sais qu'à chaque fois que ngay mujjee wax ngay a parce que qui m'a am nga ko la conquérir donc même charme bi suis koy sax ci précisé. lay préciser donc tu as trahi l'autre. quand mo gëna mëna balé trahison entre diggante góor bi ak jigen bi. mais jigen ni chaque jour trahir yow ku ci di di dox ci kaw suuf mas am far wala nga mas am jëkkër sa jëkkër wala sa mm-hmm. far trahir na mais mënoo ko xam parce que ñun suñu biir dañuy melni comme euh charpente neegu ñax ni ñi teglanté ñax yi mm-hmm. tay man à maintes reprises protège man euh sama jabar xarit bet nañu bet na xarit sama xarit ak benen gel man ma jël ndaw si mom nangu ko mom ah, ah eh. ok pour ah, protéger pour protéger ko pour protéger ko mom et qu'elle a aussi elle était obligée de répondre ci parce que dans un milieu d'abord milieu de ça, ça ne répond pas à un homme marié mm-hmm. ñu ci milieu de di il faut hein? que tu non, il non tu mais aussi si dit femme elle a accepté que man pour que je me fasse man en ah, sauvant kii j'ai trahi bi ma yor. kaa am na de. kaa am na ça ça renvoie à la solidarité des hommes contrairement à celui des femmes. wax naa pas du solidarité c'est mm-hmm. un complot. Mm-hmm. solidarité da boo jàpp ki ngay jàppale day feeñ ci ki mu bokk. Mm-hmm. absolument man bu may solidarité ak sa jëkkër day fekk mu amal la avantage yow. mais bu dee loo xam ne du sa avantage mooy dama lay comme parce que tey bu fekkee toog nañ ma toog nii mu toog nii ndaw si toog

kan. Euh, sa xarit boobu noonu nga jàppale ko ci. Euh, moom bon ñun ci lañ dëkk. ñun ci lañ ah. on l'a fait donc ñun ci lañ dëkk. Ah, eh, eh, eh, donc kon parce que bàyyiwuñ. ñun <laughs> benn laaj bu ma ko laaj par rapport ak euh, autonomisation des femmes maanaam jigéen ñi xëy uti ji lu ñu am uti ji si lu ñu yëngatu. Mhm. mais tey dañuy gis ni la plupart des de leur mari ou bien des hommes.

dañuy jàpp ne ndaw si bu amee indépendance daf ñu koy bàyyi uti keneen. ok pourquoi cette manque de confiance en vous qu'est-ce qui est parce que jubul ñun góor ñi ñoo jubul. boo boo jubul doo wóolu kenn c'est ça le problème. c'est-à-dire que mais on peut pas partager sa vie avec un homme en en se disant que ni yow ki ma nekkal di partager ak moom. Ah elle donne son mm-hmm. son son son sa vie. parce que ëmb wasin lu ne mm-hmm. xaj na ci. Mm-hmm. ñu famille yi ñu ngi koy dund n'est-ce pas nit ki mënoo jël vie am tayle ko jël jeunesse am tayle ko jël tout son bàyyi lépp famille papa yaay et tout ñëw tayle léppam pour yow alors que en retour toi tu n'as pas confiance en elle non loolu loolu moom j'accuse la société sénégalaise parce que ñun dañoo jàpp ne jigéen kanaara la elle pond di jur ay doom. Mhm. loolu dañuy jàpp ne ci mission jigéen la bokk. Mhm. et c'est pas obligatoire. parce que loolu du góor gi c'est-à-dire c'est la société elle-même moom moo forcer la femme à ce que de forcer de forcer fertile. Mhm. parce que tey jigéen bu c'est ñaari at amul dom sax. Mhm. ñu ne voilà. kii moom dafa jógee parce que ni, et que or que la plupart góor ni ñooy tële wala góor ñi ñoo dul mën bon am doom. boo jëlee boo boo defee enquête bi normale. Mhm. Euh, euh, cas d'infertilité problème petit ci n'est que la parce que moi il faut fay boppam. imagine toi ki am 13 ans. di nekk di fooy boppam ci jigéen ñi ba ñëw ba am benn âge bi mais écoutez. Mm-hmm. après duñ nangoo dem faju ji. Mm-hmm. la ko ji yow en tant que jigéen. loolu kenn mënu ko faj. non mais bu la nit waxee gunge ma sax mais nga gunge. mais kenn waaw non xam nga tey problème bi le problème mu ànd que yaa war am ngoro nga reconnaître ne da fooy sax. mais faut conserver la femme. sur son autorisation. en fait moi je pense que tout tout renvoyer sur la société ça aussi c'est un peu fuir ses responsabilités il faut que chaque personne puisse faire un travail sur lui-même De revenir la personne puisse faire une rétrospection de soi travailler sur soi parce que on ne peut pas mentir à la société et se mentir soi-même. Mhm. conscience moi. nit boo là, yow conscience Il n'y a personne d'autre là-bas le yàlla suñu borom donc mënoo jël sa jabar ngay fekkee jugement yi ci euh, comment dirais-je il y a une parole à l'égard de ton épouse tu restes les bras croisés la vie est belle parce que bon consciemment ça ça. mais difficile mais mënoo ci génn société parce que société est moo placé góor gi ci orbite boobu ne ko ki ngay forcément dala war a mën bon d'accord, je, exclure ma société mais la personne en en elle quoi. je veux dire parce que xam nga si hmm, amee doom un la femme ne doit pas être dans cette sphère là. si si à jamais il faut que bon. si mais li ngay pourquoi góor ñi ne s'interpellent pas. vis-à-vis de loolu laa expliquer C'est la société. parce que da ngay judd nekk xale nekk ci kër di gis ni ñuy traité ki am doom ak ki amul doom amul ñun amuñ ci amuñ ci sax sentiment ki am doom lañ gën a respecté que ñi amul doom mm-hmm, mm-hmm. yow nga yow muy góor nga màggee noonu ñu loo ne la yow man nga tekki mais pour nga survivre il faut nga am doom ju la doon mm-hmm. mais donc boo looy màggal dama war a takk jabar uti doom donc il y a objet de production automatiquement ça le problème boy mag dañuy japp ne jigen objet de production la togu yak faute balay am do c'est pas ça <laughs> Il ça non amna fo tollu bu ancré dans ta main parce que dafa am lu ñu wax crime de base ci nit dafa am ñetti phase yu nekk ci mom de 0 à 7 ans lu nekk ci mom dañ ko def ci mom de 7 ans à 18 ans lu nekk ci mom da ko neex hmm. mais au delà de 18 ans lu nekk ci crimes de base.

loolu ak ndof la c'est de la folie parce que ya mar nan mom maru nan <laughs> du ko mes boobu moom li mu def nako xamna na heure bi ngay xif togu na jox la nga lek uh-huh. xamna heure bi nga lu set fóot na jox la uh-huh. bale na kër gi ba yow nga man fa recevoir ces nit ñi parce que ko am jabar uh-huh. bo recevoir sa xarit mu respecter sante ko sa jabar mais du sun ngoro yow parce que bu ko neexal mu bàyyi mbalit ni fi bàyyi série fi bàyyi et cetera et cetera bu ko neexal mu def donc yow yaay ya koy delloo honneuram. mais jigéen ji xey du matin au soir di date ñi nga ñëw toog yow munoo sax jël ben siwo ndox dem sangu ji épargner ko coono bobu, may sa bopp euh, ndox naan. et c'est sax mais nga ñëw moom moo xëy togg defar na ndékki togg na añ togg na la mais bu guddi jotee bu dee dina dina ataay yow góor gi ataayal ko mais da ngay jaaxal solo kalason ni xaas ci biir kër gi ko ataayal ma naan. moo tax tout tout revient à ñu ah. c'est nous femmes ñun ñooy jur ñun ñooy yaay. Mm-hmm. donc c'est à nous aussi d'éduquer nos garçons. absolument mm-hmm. góor ñi suñu doom yi góor yi ñun ñoo leen war a yar. éduquer à ce que bu ñu amee jabar ñu ah, dimbale leen surtout yërmande ji am non mais yéen pour ngeen def ko day jafe. Mm-hmm. xam que la parole de l'homme

man je me rappelle le jour où j'étais parti à la mairie pour pour des fiançailles signer la monogamie depuis 1991 ba il ne me parle pas. ndax statue de la monogamie que vous avez signé. te moog suma yaay ñoo bokk ndey ak baay. aywa. suma ko mais il ne me parle pas. léegi pourquoi pourquoi monogamie bi déranger ko autant que mu bàyyi la ci. il a dit que damaa génn xeet. parce que moom jàpp na góor bala ngaa nekk góor da ngaa yor jigéen féetale gauche ak droite. ñeent mën gëwma loolu. non xam nga damay cité benn dama mës déglu almaxtu muy Cheikh Tidiane mu ne. il se pose la question jigéen bu am góor bu amee ñeenti jabar nan lay jaamoo yàlla guddi. dëgg dëgg. ban jamono lay ban moment la am ci guddi gi pour jaamu yàlla. <laughs> bon mais lol dég dég la laaj. Mm-hmm. mais il a raison parce que parfois aussi il faut que nga kii te beneen mooy góor gi ñun gor ñi euh, objet sexuel lañ def la femme. Hmm. Mom lañ ko jappé. Ça di dire rek li ngay bëgg ñu mën ko du amaana suñu doom dañ ko def suñu sët mais ñun duñ ko def. Mm-hmm. parce que ñun dañu jàngal né la femme bu làmp yi xassé fay lu dul bànneex mënul lo. mënul a wax lu lay jëriñ.

Euh, man dans certains pays you a gën sexy Sénégal mais la sous-région Les lan moo tax gens qui bu doxoon léegi ils euh, par exemple une mbedd mm, mm-hmm. c'est pas que dañu uniquement pour satisfaire le mm-hmm. bi mm-hmm. mais c'est faux c'est mais dans les autres pays yi nga typiquement parce que Beaucoup de choses ay turu mais de man j'ai eu la chance de fréquenter 103 pays. Mm. te amul mon frère fa def de 6 mois amul. amul j'ai découvert je suis j'ai affronté et que euh, euh, bas Badolo góor je l'ai fait partout dans le monde. Mm-hmm. li ma lay wax nii lu ci bëri man dama ko defee wax ma dama copier J'ai je te dis ce que j'ai fait trahir naa faire fen naa jigéen def j'ai tout fait dans le dans ma vie.

dëgg dëgg. concerné wu la. taxaw gi ñu lay taxaw nag moom dong ba ci biir. concerné wu la ah. concerné wu la tey da ngay gis sax et cetera Ah, parce que les femmes souffrir hein? non parce que dafa benn langage Non, non, non, c'est pas destiné à toutes les femmes. Voilà. mais c'est pas destiné à toutes les femmes. Il y' a mm-hmm. des femmes qui sont elles naissent sans virginité. Mm-hmm. C'est pas que ni euh, ne bi pas vierge. non mais je ne parle pas de la virginité pas de la virginité. dama ne la. Non mm-hmm. da ngay gis da ngay dugg ci kër ndaw si biddanti sax ne ci li qu'est-ce qui te dit que nekkuñ di weer waxtan mo ba set stop rek wala qu'est-ce qui te dit que di que jigéen ji yaayu jëkkër ji fébru ci guddi gi mu assister ko ba bër set mais yow li nga jëf rek moy est-ce que mom elle a il a elle a bien tenu l'homme sur le dans dans son lit l'aspect sexuel quoi mm. faut rek la accès seen parce que la femme est considérée comme un objet sexuel mm. point final lool. la mm. xëy na il faut nga dund yenn yi mm-hmm. am yenn auteurs yi fréquenter yenn yi am un peu de différence culturelle ak kii ni nga mën a la femme

parce que man li ma xam laa lay wax xam naa jigéen ñu koy def. Mhm. motif yi du benn. Mhm. comme ni ma xamee ne am na góor ñu koy def parce que am naa ay xarit yoo xam ne dañuy doxaan. Mhm. yori jabar am naa xarit bu am ñetti jabar te ba léegi mi ngi doxaan. am naa ko am quatre <laughs> am naa ba léegi mi ngi mi ngi doxaan parce que daf ma fekk daf ma fekk démb man ma poole mu reer mu naa ma kaay gunge ma sama kër gel ma ne ko yow da ngaa ñàkk fay man xaaral ma reer ba pare.

si sa yàgg sa jëkkër nga ko mën a parce que mën ngeen tëdd minuit ba 6 heures du matin. Mhm. fee da ngay da ngay taf yëngal da ngay sàcc. Ah. si. am na a ji <laughs> mais bu fekkee bànneex ba nga jëwut mënoo ko ci am. mais te dama wax rek mu ne sàcc dara daaxu. donc am ñu ci bëri c' est une question financière. Mhm. bon loolu bu amee jaru ko. man bu ma demee ba nar la tromper ak ak beneen góor. Mhm. je préfère ma ñaan la baat. ma jël samay responsabilité ñaan la baat mm-hmm. nga may ma ma dem sama yoon mm-hmm. waaw duma la ñaan baat nag parce que góor parce que góor gu fi ji jigéen ju fi góor wax tasal ma takk la jàpp nga jant bi mm-hmm. du la takk wala bu la takkee jaam la lay def góor gu rewut noonu déedéet mu sa question rek en résumé parce que temps bi ah, ñu ngi lay nuyuwaat man moom benn question rek laa amoon mooy lan nga ñuy dolliwaat ñu ndaw ñi. parce que wa ñun ñi sari doom nek ak bokk nek ak yow ci biir kër gi nga bokk di ñuy di ñuy yar saa su lan nga ñuy waat pour que ñu gën ko taxawaté ci biir société bi pour mën a am benn taxawaay. Euh, man li gëm dana jafe nga def ko ci société sénégalaise <laughs> mhm. parce que j'ai rien contre les mythes et les normes sociales. Mhm. mais gëwuma ko duma ko pratiquer am je suis libre. Mhm. ki koy def nak ya xam. sama yoon ci mais.

nyam ñooy sëy waaw ñun ñooy takk waaw ñoom la ñeen ko tiyal maanaam ñun ñooy takk xam damay yóbbu dat bi nga bi nga am doom bi nga ak sa bu lenn lu matériel tax nga jébbal sa bopp góor parce que góor gorewut waaw góor goo ko ci defal bees nga sa àdduna yow jigéen mm-hmm. bu amoon cent milliards boppam mu ëpp cent milliards yooyu mm-hmm. Mm-hmm. parce que ki jur sax jamono ji nangoo mu gis ni nga mel donc boo demee boo koy wéet di ko jox góor na nekk koo xam ne lenn kii il est reconnaissant bu bu bu reconnaissant à cent pour cent sax na ko nekk à pour cent na ko jaar daal surtout loolu donc yow yaay tànn sa bopp li nga bëgg di nga bëgg def ak góor gi nga bëgg a alors euh, bon peut-être que c'est vrai euh, c'est faux ça existe hmm. mais nous nous xamut parce que euh, c'est une métaphore quel nous ko expliquer dans la vie tant que je un parce que Il faut aimer sans savoir pourquoi parce que dañuy le nobel hmm. du man bu man boo demee dama la nopp damay tiit. nab gi noonu. damay tiit parce que euh dama la nopp. Uh-huh. ban moo ban mo nga ci mën a amul mo bu ko gëna amul mo bo ci mën a teg xam nga ki ngay nopp moy ki alerter sa sa sa sa intention wala sa intuition parce que l'intuition est plus forte que la réalité. Mm-hmm, comme on dit mm-hmm. moom da ngay soit day nekk ci nit ki. lolu moy réveiller.

ku juddu ku ak dara dugg ndax intérêt. waaw ñoom waaw mooy matérialiste bi ñu leen di ji nag. Mm-hmm. kan moo matérialiste ku juddu ku ne bëgg nga oto ba rafet. Mm-hmm. bëgg nga kër gu rafet. Mm-hmm. bëgg nga alal. bëgg nga jigéen eh, jigéen ju rafet wala jëkkër ju am xaalis. loolu du matériel. comme pourquoi ñu ne jigéen daa matériel. yab ñu rek. Hmm? <laughs> on dit pas que mais et que lu mu matérialiste matérialiste. tu es à la hauteur de la valeur de la femme son matérialisme ne te fait rien. Absolument. Mm-hmm. parce que la valeur est plus absolue que le matériel. Mm-hmm. et que la raison m'a primé sur le matériel. Mm-hmm. donc nañu bàyyi ay des dafa matérialiste ay il ay mais amour, donc le meurtre d'Almoy, nous, nañu xoolaat suñu bopp ñun góor ñi c'est vrai que jigéen ñi par am ci parce que c'est l'exception qui fait la règle mais man boog bu mu leen di reprocher du mu leen reprocher lenn seen taxawaay dans la société parce que du matin au soir ñi ngi def li voir. war que muy kii sëy que muy kii sëyut te jigéen aussi même bu dee day mbaraan góoroo ko ci yóbbu góor ko ci yob ñun nekkun ci bon amna société xamni jigen ji buñ gisee góor guñ nopp dañ ko koy wax direct mais ñun culturellement yarew ñu non mais yow yaay ñew ya koy fekk kërëm fi da nga ñëw doxaan jigen fekk ko seen kër man man ma sama arrivé sama dom bu jigen parce que maag seen xarit dañu tok di waxtaan amu problème bo ben gars di ko seet ben jour manako ki ñew di taxaw ci buntu kër gi bu ñew ci buntu kër gi ne dugg ci biir mu wax ko ko waa ji ñëw bi mu fekk maa ngi toog di liir jël samay tànk teg ko ci benn baax mu ñëw ma jóg chaise bi ma toog jox ko ma mu toog ma toog ci banc bi jóg dem ci boutique bi jëndal ko boisson jëndal ko ataaya soo ñu teral ko ñuy ataaya man maa la ataaya sax man personnellement. Mm-hmm. toog nañ trois heures de temps waa ji waxut. <laughs> mooy yaay de. Ah, yow ah, non ça veut ne bëggul ki mu nekkal. non. que. ñun comme man je donne mon exemple. parce que tay, man mënu ma comprendre nga ñëw ci jigéen di waxtaan ak moom papam tok té papam xamul lu ñu ko dee wala ya xamul lu ñu ko dee. góoru légui bu ñu ñëwee sa sa dama la bëgg yaa ma nopp naa la maa raw ñu alors kañ nga may seet wa surtout ça ko ci séti surtout loolu bo déparé sa kër. day absolument les sol yëg ko sa ba kala kalason xalé ko di ñëw ci digg kër gi ma ay acca ci biir néeg. naru jàmm kon moom. lim xalaat mooy na nga ñëw mu utiliser la nga dem mu solo ay yére loolu la. mais c'est pas comme ça. te ñun noonu la ñuy dundee. muy man muy sama morom ku ci am jabar invité jigéen ci hôtel bala muy ñëw wekkoo nga serbe sol caleçon toog di ko xaar. Mm-hmm. mais moo fi dëgg il faut mu fier ça donc. Ah. donc góor jigéen ju mbaraan ju ne góor moo ko ko def. Mm-hmm, mm-hmm. merci beaucoup DG merci beaucoup Béya kàddu gu maa ngi lay remercier di remercier DG ak mm-hmm. sama naataandoo yi ma bokkaloon plateau bi. di wax ni ce fut un plaisir. spécial 8 mars bi macha allah. conseil yi dugg na. gën nañu kontaan di wax ni suñu ñun jigéen ñi nañ gën a góor góor góorgóorlu gën a jàpp rek. dina bàyyi. di remercier euh, Penda ñi ma solal. macha allah waaw euh, moo fi jaar tey ci tay bi. Mhm. defal ma kii bokkul doro yi aussi noonu. Mhm. maa ngi leen di remercier bu baax a baax. di mhm. joxaat beneen rendez vous. ci lu yàggul dara. mi merci beaucoup. merci Penda c'était toujours un plaisir avec di bokk ak yéen plateau bi mm-hmm. di waxat merci Papa Doyen mom mom chaque jour dañuy jàng ci mom motax mm-hmm. chaque jour di xëy di liggéey ci tamit day nekk lu ñu neex sonal nañu nak waaye si xarit la <laughs> di di wax ne lima ma dégg ci waxtaan bi yëpp ak lima ci jàng yëpp moy ñi nga xam ne ñuy top naan ñu dem len sey ji baye leen ñu jël suñu temps Papa Doyen neen dañ tay ma kenn ene yàkkamtee bi na passé na def <laughs> ma remercier ñaar uh-huh. kenn ki damay tudd turam mais kenn ki duma

wala ñàkk confiance wala ñàkk doylo, mais du lolu mm-hmm. am nañ ci mom confiance doylo nañu ko lepp lu am ñun dañ koy paré nañ pour partager ko ak mom mm-hmm. seulement rek day comprendre que ne man luma xex xex xeex sama bopp ba am ben hauteur aussi deretu baadoole gi mu ngi sama yaram ba léegi mm-hmm. parfois day parfois day agité mais am na yàlla ma capacité ma koy contrôler à chaque fois yalla yàlla may na ma loolu koy mais na xam mom momu mi nga Euh, jamono yi xam naa ne mi may teewlu mu jàpp ne euh, bon nitu kese laa amul kii dëgg la naqari naa jëlee tàng naa ak sax mi xam. erreur mënul euh, ñàkk jël comprendre suñu papa. DG erreur mënul ñàkk ci àdduna. <laughs> waaye cas dama koy topp déggan. <laughs> yii doy cas <laughs> jaajëf Penda di jaajëfal euh, mbokku téléspectateurs yi di jaajëfal ñi ma bokkaloon plateau bi sama xarit yu yanj yi macha tey taaral ngeen plateau bi ba mu taaru. Mm, waaw gis nga def faam jongoma macha allah. <laughs> bill yi nee naa leen ñun fu xëy nekkuñ fa rek foofu du am xorom. suis euh, femme mo fi nek ko nangu mm. la yow sama sama <laughs> mais Penda ah. dem remercier sama d'enfance ñu ko Gilles euh, Gilles mm. Euh, dafa je bonne fête sama xarit sama ami d'enfance. Mhm. ba pare dig ma tableau nee na tableau bu nice la may defal kon Jules borom Saare Ndiougaare maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di jaajëfal képp ku toogoon di ñu seetaan. Mhm. di leen wax merci beaucoup ba mercredi prochain incha allah. benn dama yàlla ma ma remercier Naz. Mhm. borom pose yu baax yi moo ma pose defal ma make up. moo nga fees ne ca centre commercial Naz. macha allah xaaral ma joxe waale numéro bi rek. gars yi dem foofu noonu ko defee bu defal leen lu taaru lu yàng. 77 la 588 11 62. merci beaucoup merci beaucoup encore une fois yéen ñi nga xam ne la bokkul plateau bi di leen souhaiter encore une fois bonne fête comme ni ñu ko bokkee ñun ñëpp di jaajëfal Gaye ci samay kàddu jigéenu tele bi sant nañu la. Mhm. gërëm nañu la gis nañ sa taxawaay ci ñun mais aussi taxaw ñuy taxawu. Mhm. parce que tamit loo am rek ñun ñoo ko bàyyi ci sa poche. du samay kàddu man kese. mais kàddu képp koo xamante ne jigéen ba di liggéey ci tele bi la taxawu nga ñu. sonal nañu la mhm. mën nañ fa li ngay dépasse ñun dépasse woo ko sa bir kan mhm. kon jaajëf fi nga xamanteni fi la xaas bay joggé mhm. yalla na fa gën di bari mais aussi yalla na la yalla bàyyi ci suñu kanam mu gën ñu gungé encore une fois jërëjëf ñepp ñi nga xamanteni ñu mëna li nga xamanteni mo di marso spécial 8 mars ñu jaglél ko jigéen ñi sante ak ngeerëm rek ñël leen ñi nga xamanteni ci ne si tam tey rafet nañ bu baax baax baax and bi ak encore une fois asta dañuy gërëm rek ma Faya ak perfili mi nga xamanteni mo ma tanal yaay ju baax nak wax deug yalla ah ko nit damay gërëm manit it Ibrahima Dieng Dieng Naar umbi ma tàndal sama xabiib la daa mel xabiib bi am waaw kay jërë ngeen jëf Baye Mor yéen ñi féete woon ci wàllum xarala gi jërë ngeen jëf Ibrahima Diop moom mi ambiance bi kon gaa rabbi <laughs>